dugg rek ñu lay nuyu yéen fi ku ñëwagul ak ku déjà ñëw ñu partager ko jokkalante ko mu yaatu rapidement mi nga xawa guddi fi man ñoom dañuy bayyi ba ci weekend bi sax ñu àggale ko démb li ma doon def li ma doon li ñu doon def démb dafa mujj dagg ndax batterie bi dama nekkoon ci biti euh doon wax ci auto bi wax ndekete chargé wu ma téléphone bi ba mu dagg noonu après ma ne ma naa bàyyi ba weekend bi mais am na ñoo xam ne mënuñoo muñ ba weekend bi samedi dimanche ndax fi ma tolloon xam naa muy deuxième étape bi nga xam ne moo war a topp ci mbégte gi ñu am ci bisu démb bi ak mobilisation bi gi ñu ci war a ko yéen ñëpp ñi mobilisé wu woon yéen ñëpp ñu waroon a jàll ci beneen. fànn bi muy la cay topp nag lu ñu wane démb wane ko mbooloo wane ko ci taxaw wane ko ci jële fi mag Sall képp ñu waxtaan pare kenn ku ne ñibbi ci jàmm loolu moo doon liñ doon woote démb waaye dafa am lu ci war a topp loo xam ne démb moom laa bëggoon a wax faf mu dagg kon ku dugg rek na partager mu yaatu incha allah ñu àggale waxtaan wi xol bu noqari nag laa am xol bu noqari mbégte mi yàggul ma foogoon ne dina yàgg fii ak ay fan waaye mbégte mi yàggul teel a taxaw li ko waral mooy li ma dégg Macky Sall wax ko pari tey la xew Sénégal la xew Sénégal France la koy waxee dafa dem ba pari toog fa tubaab yi tiim ko di ko laaj muy tontu tubaab yi ci li xew Sénégal waaye waxewu ko Sénégal de waxu ko Madiambal waxu ko Youssou Ndour waxu ko Yakham Mbaye waxu ko euh, TFM waxu ko Walfadjri ñoom ñi koy jàppale Sénégal bu amee lu muy wax du wax ak ñoom da leen di jéggi jël avion suñu avion dem Paris bu demee foofu ci tubaab yi France 24 RFI lay waxal ñooñu ñooy ay nawlem mais du yéen làppato sénégalais yi ay Ibrahima Sène ki làppato yooyu ay ñoom Madiambal Diagne ak Youssou Ndour góor jigéen yooyu ñooñu Macky nawloowu leen ak seen télé yi ak ñoom El Hadj Ndiaye 2STV yi ay ñoom Bougane Gueye ñoom ñëpp kii di góor jigéen googu ak seen télévision yi Macky da leen xont di leen jox xaalis mais su amee lu muy wax lu ko ñor ci Sénégal day dem ba Paris fekk fa tubaab bi toog ñoom wax ak ñoom sama xol bi naqari dinaa ci ñëw am nañu ay maam yu baax am ay mag ñu baax suuf si macha allah lépp baax na fi waaye amuñu président bu baax te mag ñi mënuñoo fexe ba président bi baax nawloowu leen sax ñoom buy wax lu ko ñor ci réew mi day dem ba ca tubaab ya mu toog fa wax ko loolu benn ci mandarga yi wane ne réew mi moomuñu ko alaaji Malick moomu ko Serigne Touba moomu ko kenn moomu ko yéen ñëpp ay làppate ngeen réew mi tubaab yee ko moom Emmanuel Macron moo ko moom du Mbaye Sy Mansour ko moom du am Mbacké ko moom di ngeen tàppale yéen ñëpp li ngeen wax du dëgg ndax Macky Sall bu amee lu muy wax ci réewum Sénégal googu du ko wax Sénégal soo amee réew mi du ci wax bu Sénégalais yi dee du ci yëy du ci yàbbi waaye bu ne cëpp France tubaab yi tiim ko teg seen rek day wax ak ñoom par force ca la xew Sénégal waaw loolu mooy am ay maamu làppato ay doom yi làppatu la ñu jur ak sët yi làppatu waaw li ñu génn démb ci mbooloo ci Sénégal def ko ci defin wu rafet xamal ko ne ko ñun jub nañ taxaw jaamaar looy yow toju ñu xeexu ñu defuñu dara malgré seen i glace yu ñu sotteeg seen ndox yu ñu sotteeg seen i nervis yëpp ñun def nañ li ñuy def def ko ci ñu mu gën rafetee xeexu ñu xuloowuñu ñu yaakaar ne dana am lu mu ci jàng am lu mu ci jël am fu mu taxawee mu ne déedéet bañ koy def daw na ma nga Paris daw dem la ko tubaab bi dar ak seen i micro waaw Sénégal li si yeewi askan wi léegi naa dañ koo dàq lu tax ñu dàq ko bu toog a fenn na Macky Sall man jaaxal na ma président bu mel nii naka la ko Sénégal yi mën a amee réew mu ñu Serigne Touba ko moom Alaaji Malick ko bi demoon bëkk yi mu fenn ci tubaab bi tey jii nan waw li ci yewi askan wi dañoo def erreur respecté wuñu parité te loi bi ku respecté wuñu parité dañ lay dàq ñoom sax dàq nañ seen benn liste boo xam ne amul sax problème bu parité ndax parité amoon na ci waaye dafa amoon erreur bu ndaw rek dafa amoon njumte bu ndaw waaye teewul dàq nañ ko kon donc loi bi mooy def loolu dégg nga de fen yi ni fen tubaab yi waaw ndax Dakar bañ ko dàqee ba ko ministre de l'intérieur dàqee dafa dem conseil constitutionnel conseil dellowaat delloowaat ko waa yeewi askan wi kon conseil constitutionnel bi defoon loolu moo defaat lii mënoon nag bu ñu la joxee nga ne baax na bu ñu la joxul nga génn dégg nga de dégg de dégg nga fi mu jaar Macky de li wax tubaab nee na moom benn boo ko yaakaar seeni liste baax na erreur bu ndaw a ci amoon waaye teewul sax ñu dàqal leen benn ci seen ñaari liste yi kon yeewi askan nañ kii nit la lii la wax tubaab bi tey tubaab bi di ko di ko laaj la leen tontu tubaab yi journaliste yi ne ko waaw attention de démb def nañ mobilisation bu rëy rëy rëy rëy lii nga wax ni est-ce que bu ñu demee ba ci kanam fii ak élection yi Sénégal du tàkk réew mi du tàkk mun leen tàkk lu koy taal déedéet du tàkk dara du ci am dañuy organiser élection yi dina am ci date bi mu am a dara du xew journaliste bi na ko attention de li xewoon mois de mars bii passé Sénégal loolu moom mbaa boo defee lii loolu du amaat Macky Sall na ko déet bu leen wax ci mois de mars mois de mars du du reyukaay boo xam ne lu ngeen jël lu romb la rek loolu du loo xam ne lu rëy la loo xam ne lu ngeen bëgg a natt rek natt ko ci loolu mois de mas bi li fi xewoon loolu ngelaw ngelaw lu raw la ngelaw lu ndaw ju fi jàll joo xam ne du nattukaay mën leen lu ngeen yëkkati ci fitna rek nattee ko foofu loolu mu bàyyi leen loolu de gis nga li mu doon tubaab yi nee na nee na tubaab yi bu ñu natt fitna ci réew mi ci li fi xewoon daaw ci mois de mars bi loolu du nattukaay buñ ko ci bu ñu ko ci natt loolu moom lu fi romboon loolu moom da koo bett waaye nee na journaliste bi ne ko tubaab bi ne ko attention boo forcer élection yi def ko te boole woo ci Ousmane Sonko réew mi mën naa tàkk mu tontu tubaab bi ne ko ba booba loolu mënoo tubaab bi loolu ngi suñu kanam ñun ñëpp la tëkk nee na loolu mi ngi suñu kanam moo tax newoon na leen jaan la tànk dagg bu ñu bopp bi du du du pare ak ñun. Sénégal yëpp bu ñu génnoon faale wuñ faale wu leen day def li muy def il faut que ñu jóg ut dagg bopp bi cer lii la tontu tey tubaab bi attention tubaab yaa ngi koy waxal de attention attention boo defee élection yi te Ousmane Sonko bokku ci réew mën naa boy mu ne ko réew mi du boy état bi dafa am doole te dañ organiser élection yi Ousmane Sonko du ci bokk te bu boobaa lu ñu def ñun daal ko def te loolu mi ngi suñu kanam ku ñu tëkku ñoo ngi ku ñu tëkku rek loolu mi ngi suñu kanam lii la Macky Sall tontu tey tubaab bi ca France gam na mëj dem fa démb ba ngeen wootee la dem ndaw waaw parce que ci ñun la ñun ñii la ñoo war a jeexal mbir mi ñu taxaw di layam layam ko wax wax jee bari démb julli nañ juma julli suñu iid boo julli tabaski boo bu ñu julli tabaski ñëpp dañuy sol rafet ñu dem imam bi xutba waaye bu ñu nee salaamaaleykum ba julli tabaski ba noppi nag imam bi def xutbaam ba noppi nag nu ngi def dañuy génn génn paaka yi tër xar yi rendi kenn ku nekk ñibbi sa kër nga tër xar rendi après nga fees boo feesee jël xol baag yooyu kii bi faar yi teg ci kaw taabal ji commencé lakk loolu lañ defagul julli nañ ba noppi sol suñuy gas ne rek suñuy mbasin imaam bi xutba macha allah ku ne ñibbi sa kër mais rendee guñu xar yi xar yi lañ war a rendi génn paaka yi bu ñu bëggee wàjji loolu moo ci des moo sama xol bi neexul démb ci heure bi sama xol baa ngi neex tey sama xol bi dafa naqari te moo ko tey Macky Sall bëggul ñu bëgg musiba rek saa su xëyee mi ngi def luy naqari suñu xol yi ñun patriote su ko waxoon Sénégal sax ñu ne xëy na rek na Sénégalais yi avion la jël suñu avion ne muy dem bàyyi fa doomi làppatoo yi seen la fa ba dem ca tubaab yi nga xam ne ñemewu leen maam yi man mi leen yilif maa ñoom ñooy daje fan te tugal France ma dem toog ak ñoom ak seen i tubaab yi seen i journaliste du ma wax ak ndax day jàmb du ma wax ak Youssou Ndour góor katu karat du ma wax ak El Hadj Ndiaye féticheur du ma wax ak kenn koo xam ne am nga télé mi wala faju du ma ci wax ak kenn yaa xam mbay góor jigéen du ma ci wax ak kenn ndax yéen ay làppte ngeen su may wax ca tubaab yi laay waxee journaliste taskatu xabaar tubaab yi fa laay waxee li xew Sénégal du ma ko waxee Sénégal ci biti koy waxee te li may wax ni du tey du démb du barki démb ba mu toogee ci fukki at ci réew mi ba yéegi lépp lu mu war a wax ci réew mi lu ñor réew mi ci biti la koy waxee du ko wax ci biir réew mi day dem ca tubaab yi fa la koy waxee ndax da rafet na kontaan nañ ci yow xale yi kenn tukkeetul léegi xale bu ma seet si li mooy suñ bi ñaanal sama projet bi macha allah réew mi am na courant réew mi am na ndox xale yaa ngi am seen i projet ñi ngi am xaalis am nañ seen i kër ñi sëñ maay ñes wax du sama wax bu ma kenn yóbbu ko yaama di tax wax ji sëñ maay ñes ma demoon sidan di jubóole ji mo wax li ci Sénégal ñëpp dégg nee moko wax Macky Sall réew ma ngi dox ma sha allah maay ñeesa wax loolu de samay wax nak wax yi may ñees la ak yeen yeen ñi nekk ci réew mi o man ndax yeen li sey may ñees di wax ne xalé yi léegi ay projet lañu am ko ci gis mi ngeen ay ambition ak ay projet léegi benn xale bëggatul tukki kenn jëlatul géej gi dem xale yaa ngi ci réew mi am fulla ndax réew mi neex na Macky moo ko tabax nee na Macky moo moo fi indi loolu xale yi léegi dañoo am ay ambition am ay projet di liggéey muy dox Mahi Niass la ko wax waxuma ko loolu nag yéen yéenay xool ndax li Mahi Niass wax ak liggéey dund am na benn la wala bennul moom mi dem ba Soudan fekk fa ay ñuy xuloo mu di leen jubale te ñun ñu am lu ne na genn ci biir réew mi fii mu jéggi ko fi jël at yéeg na may dem ci dëkk jàmbur di jubóole ñu naan dafa am na nag dafa lii dafa laaj ambassadeur Sénégal xanaa bala ngaa nekk ambassadeur Sénégal ci biti da ngay nekk ambassadeur Sénégal ci biir réew mi nañ leen waxante dëgg te bàyyi naafeq ji nafiq baaxut ab jullit du naafeq man bala maa laax di jaay damay laax lekk ba mën a toog ci ban bi may jaayee sama laax waaye du ma toggum laax bu neex ma xiif bay miir toog ca buntu mbedd ma jaay sama laax battu fukk te mënumaa te mënumaa taxaw bu may encaisse sax maa ngi tëj maa ngi maa ngi jaay ko ngir xiif xanaa nag nit ki nag lu mu ñàkk ñàkk fayda doo togg sa bagaanu laax bu neex def ci sa diw ñoo rek wala sa diwtiir togg ba mu neex toog ca mbedd ma di ko jaay te lekkoo ci mosoo ci te yaa ngi bëgg a dee xiif loolu as dafa koy def naan yaa ngi jubale ay nit ak kenn xamul te réew mi ñëkkul jàmm kenn lekkul kenn naanul ñu ne kenn du wax soo ko waxee ñu ne ma ngay saaga sëriñ si dafa lii dafa ñàkk teggin ki eh, eh, joxul cër suñu kilifa diine yi yéen seen kilifa diine yi lu ñu kilifa diine woo lan mooy diine diine mooy nit mooy dund diine mooy dëgg alxaq diine mooy dignité ay làppata ngeen amu leen diine du ngeen sax ay jullit ndax ki leen yi def du jullit tubaab yi la àndal ak góor jigéen ñi yeeg ruuxkatu karat yi du wax ak sax yéen su amee lu ko ñor lu muy wax ci réew mi da leen fay bàyyi dem tubaab ya France ngeen na ay kilifa diine diine ga yéen luy seen diine dañu waxante dëgg luy seen diine mooy lan dañu waxante dëgg naa feq gi ba kañ ba kañ la ma bëggoon a wax démb tey moom laa leen di wax ma xëy tey dégg ko mu waxati ma xam ne kii woote dañu woote démb mbooloo mi génn lañ fa wax déggu ci dara yaram nekku ci dafa ñëkk dafa rëy nit ku soxor la ku bon la li ñu def démb da koo méttee méttee métti mbooloo mi génnee ko métti ba moo tax mu génn tey di ñu tontu lii. ak di leen wax ne faalewu ma leen li ngeen def gisuma ko du ma xool ay sagar yu xonk su ngeen wootee bu mbooloo mi bari sama yoon nekku yi su ngeen waxee lu ngeen bari bari bu ma génnee damay wax mel ne mosu leen a woote damay nekk ci seen kaw di leen dëkku di leen menacé keroog bañ ko naree jàpp ci pale bi mu woo suñ Muntaxa Mbàkke ba mu génne ko ci mu génn taxaw naan dégg naa ndaw ñi yéen dégg naa leen waaw di digg digg digg feni neen dinaa créé xaw ma nag dinaa jël trois cent milliards fexe ba ndaw ñi ami xëy ana xëy ya ana yi dégg naa leen xam na li leen metti jafe-jafe yi naa ci taxaw naa fexe ba ut ay jëmtuwaay yoo xam ne ndaw yi daañu am lu ñu liggéey seeni neen ndekete booba ñu def loi de finance rectificative def benn projet de loi de finance rectificative pour rectifier budget bi mu mën caa génne xaalis maa ngi koy fàttaliku daaw après mois de mars bi dafa def loi des finances rectificative pour lan nee damay dem ci budget ba soppi dépense yi nga xam ne moom la ñu waajaloon ci budget bi ma am yu ma ci jukki jël ko yoo xam ne fu bokkul woon ci li ñu boole ci budget bi waaye damay soppi budget bi léegi am yu ñu waroon jëndee ay lal yu waroon dem ci hôpital yi yu waroon defaree ay tali yu waroon dem ci askan dama koy jëlaat xaalis boobu yëpp ci budget bi laa ko jëlee muy ay milliards ma taxañ ko ne dama koy dugal ci li nga xam ne mooy xëyu gone yi loolu génne ci xaw ma soixante quinze milliards xaw ma cent milliards la waxoon léegi na ci at mu njëkk mi mel at mi xaw ñaata milliards fenni neen dañ koy bind di ko wax mu tëñum gëléem di lang waaye dorot ñu wax ñu nax leen ci ci ay wax mu dugg seen nopp yi ngeen sàqami ko te gisagu leen dara lu dugg seen gémmiñ xam nga nopp du sàqami gémmiñ mooy sàqami mag yéen la lu mu leen jox rek ci nopp la ko jaarale làmmiñam la koy wax mu dugg seen nopp yi ngeen sàqami nopp du sàqami gémmiñ mooy sàqami te du def dara ci seen gémmiñ ngeen diif mu dox doxam buñ defee ñaari weer ñetti weer mu indi beneen programme ngeen fàtte boobu ana xëy ndaw ña dara ndeke booba koppar yooyu mu doon génn ci budget bi da ko doon génne pour dem jënd ci ay sox jënd ci ay lacrymogène jënd ci ay dumay taay jënd ci kii jox ko armée beeg policiers yi ak gendarmerie pour ku génn ñu dumale ba ngay bëgg a da ngeen maa bettoon waaye bi yoon du ngeen ma bett loolu foofu la doon jëm ak ñun bu bu signalé gauche bu signalé càmm bu signalé càmmoñ ne càmmoñ lay lay jàdd ndeyjoor lay jël fen guddi sen bëccëg mun da wax dëgg bu demee Tivaouane ñu dalal ko ko enquête bi bu mu diis ah na enquête bi yoram ah fukki xale yu juróom-ñaar yi xëm ci hôpital bi sëriñ bi génn ah, waaw xam nga sama waay nga bi nag ah, bu ko gars yi dëgëral ah enquête bi sëriñ bi enquête bi du dëgër enquête bi mbay si Mansour enquête bi du yow ñu rey fukki nit ak juróom-ñaar ci sa biir dëkk boo bëgg a dëkk nga waxoon nekk ki njëkk a taxaw ne na leer comme na ko alaaji Abdul Aziz Dabakh daan defee dëgg yàlla moo ko mën bu fekkee ndëgg gu war a dal ci ndog du Seydil Hadji Malick bi ma jur dama koy dóor ci kaw Seydil Hadji Malick ndax moomu ko moom mu moo ko moom alaaji Abdou Aziz Dabakh yal nañu ko yàlla fayal suñu bàjjo ba tey ba xiyam yal na yàlla moom ñu koy jooy ba léegi nga toog fa mu toogoon tey Macky ñëw fukki ñaar dee nga waroon a wokk ki taxaw waroon wax say tubay woote ñëpp na leer parce que ay bakkanu doomi aadama lañ rawatina ay tuut tànk ci ndeysaan yoo xam ne yow moomu di wax yow Muntaxa yow yow Mbaye Sy Mansour boo nekkoon tey foofu xale yi nekk da ngay daw jëppit ak say caaya doo fa toog di xaar lakk gi la lakk ndax ñi muy woo lakk ay gone yu xonk cey nampaguñu seen weeru ndey bañ juddoo ba léegi nampaguñu mosaguñu seen meewu ndey safara ñëw lekk lakk lakk leen ba ñu xëm ñu war a xam lu ko waral xool ndax am na ay càggante ñu xool ña ko def ñu tëj leen ci kaso bi yow Mbaye Sy Mansour yaay taxaw nga ne yaay xalifa Seydil Hadji nga ne nitu diine nga nga ne kilifa diine nga yaay taxaw ne na yow la ma mu leer buñ ko leeral ba lu tax parce que njuuj njaaj ngeen fi nekkee marché yi koy lekk hôpital bi marché ya fa nekkoon lañ fa waroon def ak lamp yaag courant yaag fil yaag yëpp ngeen jël ko ci seen biir yéen mafia bi yow moom ak waa Kiruse ki doomi Abdou Aziz Sy Junior yi seen mafia bi ngeen nekk yëpp xam nañ ko lépp xam nañ ko mais xaraam yi bon ngeen toog taxaw naan ay Kiruse ay parce que si ngeen sant ay Kiruse mafia guddi bëccëg ànd ak nguur gi di lekk alalu askan wi marché bu génn lekk moo am dëkk dëkk yëpp boo demee Tiwaawan Tuuba tamit marché hôpital ba ñu lekk ko loolu fi gën ñu lekk ko naan lépp ci Bàmba ji lépp ci Maodo gi lépp ci Limaamu Laay gi lépp ci ngeen ne kenn du ko wax nit ñi di dee guddi ak bëccëg loolu Seydi Hajji Maalik da koo sañoon sañu ko Sëriñ Tuuba xalaatu ko ndax ñu ñooñu dañoo ragaloon yàlla di jaamu yàlla te amoon àq ak yelleef buñ jox doomu aadama mais yéen du ngeen ay nit ay délégation yewi tout ça dik lolu man intéressé wu man kenn du ma fooye waaw Khalifa Sall ki dem ay dik pour lan ça ne m'intéresse pas ay bari dolli mi ngi dikk yooyu intéressé wu man li ma intéressé mooy ku dem dik sama yoon nekku ci nañ ñun tej ñom ñep sa layam layam yi dafa bari demb li ñu def def nañ ko bañu paré té dañu commencé won nek ci rue yu Dakar ñu ñu paralyser rew mi yëpp kenn du yëngu rew mi yëpp nek paralysie ñun xeex lañu saf suñu yaram yi la saf mais ñu ay toog gi discours discours yi dafa bari nañ leen tëj ñoom ñëpp di kaso yi coow lu jeex xeexu bi dem bi dikkuñu saa suñu wootee wax a wax a wax ku nekk dem tëdd bu ñu xëyoon nag gi dugal ci di kaso bi ñu di ay wax yu bari dolli xeexu ma wax ma wax bu ma kenn wax ay wax yu bari dolli baax na lu jaaree ci Khalifa Sall ko Ousmane Sonko bu euh, ci wax man kuy xeex laay waxal ak ku fare pour xeex ñooñu ma ñooñu ma intéresse waxoon naa leen ko fi jàpp lañ Cheikh Omar Diagne mu gën naa subaa ñu génne ko dugal Guy Marius Sagna ngeen ne Guy Marius subaa ñu jàpp Bara Dolly dugal ngeen ne Bara nii nii ngeen bëgg a nekk nii Macky leen fooyee ma nga ca France toog jaaxaan di waxal subaa bi naan yu seddam di naan ay whisky ko ci wax mu dugal ci kaso bi ngeen jóg di lambar lambar naan ay digg ki dag parce que xeex bi xeexu xeexuñu ko loolu ma dëgg dañu war a xeex bu ma ci kenn wax man taluma yooyu kuñ ci jàpp sama yoon néew ci ma xeexal kenn ci xeex bu ma ma jàppee bu ma kenn xeexal bàyyi ma ca kaso xeex ba Macky jóge fi waxoon naa ko jaan gi tànk dagguñu bopp bi kenn du mucc tey Bara Dolly bari ki démb Ousmane Sonko la woon bari waat démb Khalifa Sall la ba ko ak Karim Wade moom ma nga ñu dugg ca Qatar tëj ko fa ne doo doo tegal sa tànk Khalifa Sall di layam layami parce que xeexu leen Barthélémy Dias mi ngi en génn ci mbedd mi Macky Sall abal ñu mi ngi Paris du dellu génn leen ngeen xeex comme ça du tegal tànkam ci réew mi xeex rek sama wax démb sama wax tey xeex rek xeex rek o bul wax on va dégager mag yi xam nga on va mooy mooy mooy yaa ngi mooy on va yaa ngi conjuguer le futur c'est bien loolu yàgg naa ko dégg de on va dégager mag Macky 2012 ba léegi ñu ngi koy wax on va dégager Macky on va depuis 2012 léegi on va le dégager quoi kon léegi nañ toog xaar bu suñu paree ñu yëgoo su ngeen paree ñu pare ñun ñëpp nañ yëgoo d' accord kon nañ toog xaar kon jërul si sax man laay te yëpp naa ko arrêté suñu paree rek ñu wax ñu ko ah mais ñu kenn wax ay wax yu wax yu jiimani saa ci kaso bi ay Cheikh Omar Diagne ñooñu ñëpp man mii yéen kenn ku ne mën ngaa dugg ci kaso bi suba ñun ñëpp ah, man bu ma kaso bu kenn jooyee bu kenn baleen ma fa su ma fay dee dee naa fa man moo ma gënal man bu kenn tudd xeex leen li ngeen war a xeex parce que nekk ma nekk ci kaso bi ngeen naan gërë amul njariñ tant que gaari ji ñu ngi dund kenn du mujj waaw léegi nag on va on va on ok maa ngi leen di xaar su leen ngeen wax ma non élection du am loolu xam nga day teg dil man xam naa ne élection du amul moom bëggul def élection parce mu wax contraire bi moom moo nekk ci bopp bi dafa jaxase écarté élection bi yëpp ba élection du am léegi dafa bëgg ku ko may mu bañ koo organiser gis nga li mu wax ci tubaab yi tëkk googu mu wax li mu wax tey ci tubaab yi da koo wax pour yëkkati nit ñi pour que ñu génn ci mbedd mi pour que mu mën caa sukkandiku ba nga taxawal élection yi moom élection la bëggul ñaari mbir moo nekk ci bopp buy dem élection nii ci 31 juillet da ciy dem sans Ousmane Sonko déglu leen baax li ma leen wax li tax mu def élection yi 31 juillet bi mooy Ousmane Sonko du bokk génn na ko ba noppi loolu rek mooy tax mu ma dem élection parce que xam na ne bu demee élection ak Ousmane Sonko da koy ñàkk day ñàkk élection yi te di gis xam na ko parce que wàllu ak yeewi Ousmane Sonko tête de liste Ablaye Wade ñu def ko tête de liste fële Ousmane Sonko tête de liste fii bu ñu ko war ndomba ak ñoom Khalifa ñi ci Barthélémy Dias ñàkk na xam na ko la dul def am ay statistiques am def na ay sondage ba xam ne moom mënut a Sénégal day am cohabitation par force mu ne léegi damay buddi Ousmane Sonko sànni si àll ba Ablaye Wade xëy du ñëw mag la lii bu amee danaa organiser élection yi su amul nag danaa fexe ba. ñàkk organiser élection yi jóge ci opposition bi mooy lan dama leen xañ li ñu bëgg ba ñu génn fipp dal ci sama kaw mu sukkandiku ci doxal élection yi loolu mooy plan bu la ngeen xam ko mais plan boobu ñun dañ ko cee war a fekk si parce que ñun bu ñu fippoo ba réew mi tàkk moom dana tal leneen lu dul di doxal ay élection moom def fi dul nekkati bay puus ay élection su boobaa élection yi ñun ñoo koy organiser moom dootu ko fi fekk ndax la ñuy ndax Ousmane Sonko ñàkk bokk ba mu jàpp ne loolu bu amee da cay profité jël benn décret ne élection dañ ko reporté ndax réew mi amul jàmm ak wax a wax lay lay su boobaa moom décret dootu ko signé moom day génn réew mi su boobaa mais nag loolu mi ngi aju ci ñun élection yi man bañ ne ma da ko du am élection yi biñ ne ma du biñ may wax du am mat na trois semaines élection yi ñu ne ma du am te ci ma ko wax du waxantu nee na ma élection yi du am ma ne ko non mu ne ma élection yi du am bu naree am day créer taw taw Macky Sall day créer taw muy taw day fexe ba inondation am waaw na fexe ba taw bi taw fépp inondation ba nga xam ne élection di mën a am mu maanaam bu opposition bi xeexul ba mën jaa sukkandiku bu même bu jàmm amee day Ousmane Sonko mi su naroon a bokk Macky Sall day fexe ba taw am day fexe ba taw moom Macky Sall day taw Macky mën naa taw yéen làppatoo yéen a xamul na Macky mën naa taw Macky day taw su ko saa su ko neexee day taw yéen yéen a ko man xam naa loolu man. bind naa ko ba ci démb ku ma semaine passée am ñu reet ah taw nag ah taw nag moom yàllaa ko moom taw moom loolu yëf yàllaa taw mu ne xoolal làppatoo yi ñoom yaakaar nañ ne yàlla mooy taw nit day taw nit day taw taw leen foofu yëgu leen lu xew xamu leen lu xew ndigal xale yooyu di laaj ndigal mais kuy xeex laaj ndigal xeex xeex amul ndigal xale boobu ñoo ñu laaj ndigal ku ma ci romboon ci mbedd bi ne la tëll am mbéj damay xool ndax da nga fay taxaw di xaar ndigal wala doo xaar ndigal kuy xaar ndigal xeexu yooyu ñun dañuy nax suñu bopp rek waaye ñun xeexuñu ndigal ko koo xaar ndigal Ousmane Sonko ngay xaar ndigal Ousmane Sonko xaar mu jóg taxaw tiimal leen Sénégal yëpp ne leen dem leen xeex Ousmane Sonko ngeen xaar ci moom loolu Ousmane Sonko ngeen xaar mu ne leen dem leen ci palais bi génn Macky Sall Ousmane Sonko bi ko bëggee jàpp def ko ci kaso bi mois de mars sax waxu leen ngeen xeex waxu leen ngeen génn Macky waxu leen ko kenn ku ci nekk la la yëkkati Ousmane Sonko yëkkatiwu la woowul kenn ci xeex bi résisté la wax lam mu ci mois de mars bi mom la waxat tay résistance légui lu ngeen xaar mu leen ko répéter bu su nekk jog leen dem leen xex gën leen seen jaase gën leen seen fatal loolu ngeen xaar ci Ousmane Sonko bo liggéey mom bu nekkee président am keneen ku jog nako yaasi wote won fatal ak jaasi ñun tamit suñu nit gën leen fatal gën leen jaase dem leen ci palais bi ngeen fekk fa Ousmane Sonko génne ko loolu ngeen yaakaar ne mooy cëri Ousmane Sonko ak ku bëgg a réew mi loolu yëf Ousmane Sonko loolu sama yëf la ak yow mi may dégg loolu suñu mbiri bopp la loolu du Ousmane Sonko moo ñu ko war a wax ndax loolu du cëram walo mais nag comme ñi ci ëpp ay làppata lañ xamuñu dégguñu daaj Ousmane Sonko junj na leen ba tàyyi mais déggu leen daaj toog naan ndigal ndigal ndigal <laughs> ndax daf ñoo tëkku tey ki tubaab bi daf ñu tëkku dem ca tubaab yi dañu tëkku waaye suñuy manifester Sénégal day daw de du fa toog amul fitu toog fa bu duggee ci tubaab bi nag day am fit ndax ñoom ak moom ak tubaab bi ñoo ànd su demee ci dëkk tubaab yi fa Paris ak France foofu lay amee fit di wax sénégalais yi lu ko neex waaye bu ñuy manifester ci réew mi day daw. mais nag ah comme nee ngeen ne ma yàggul daañu ko dañ ko fi jëlee gëm naa leen. maa ngi toog seen naaw man maa ngi leen di xaar man li ma xam wax naa ko comme nee ngeen ne ma ñi ñenn ñi nee nañ ma du noonu nañ ne teg waaw léegi léegi fekk naa ne naa ngi ne teg na kon naa ne teg naa ne teg déglu leen man li ma xam wax naa ko li ma xam wax naa ko kat am ñu ne ma déet nañ ne teg rek yëf yi dana tàmbali fu buy tàmbali du ñu xam fu muy jóge <laughs> di xaar loo xam ne xamoo fu muy jóge ak ku ko indi baax na waaw kon nañ def non nañ def noonu nañu def noonu d'accord ngi def ñu xaar weñ de weñ aw tàngoor moo koy moo koy moo koy moo koy nàmm tàngoor mooy nàmm weñ waaye du seddaay weñ gu boo ko bëggee nàmm da koy tàngal ba mu tàng jëpp weñ bu tàngul kenn du ko nàmm kenn du ko nàmm Macky Sall waratutee tànkam Sénégal Macky waratu la ñibbi senegal xaw ma ma nga waru fa jóge di dem Sénégal kooku Ben Sénégalais wuro ko ko may ba Sénégalais yi nek Paris sax waruñu ko bàyyi muy déparé Paris ba Sénégalais yi nek Sénégal di bayyi mu duggaat ci réew mak Sall wuro ko teg tank ci biir réew Sénégal waruñu ko bayyi mu ne mu wacc fa cëpp lolu lolu bu ñu fulla tay ji Sénégal bu ñu taxaw tay am fulla ñepp genn mak Sall du dellu ci Sénégal kon loolu mooy xeex am jam. Cheikh Omar Diagne genn ci kasso bi baara doli genn ci kasso bi ak ñeneen ñeneen ñu nek ci kasso yi te ñu dara ñu genn ci kasso bi parce que Bara Dolly lu mu wax Macky Sall day sàcc suuf Macky fii sàcc suufam ñëpp xam nañ ko sàcc suufu Macky Sall kan moo ko ëmbale loolu dafa jar ñu di ko woo ba di ko téye waaye nag comme ñoo ñoo ngi xaar pare guñu pour xeex ah moom muy jàpp dugg ci kaso bi rek Bara Dolly Mbàkke tey am Mbàkke Mbàkke la yóbbu ci kaso bi tey très bien bu subaa mu jàpp ko sant si maanaam santu prêt à porter yi ñun nga xam na ay santu balu fëgg jaay la ñore ñun ñun miin nañu kaso ñun xam nañ waaye Mbàkke Mbàkke ñoom miinuñu

mi ngi bari doole dafa am immunité parlementaire député la waroo ko woo di ko déglu wala ngay koy yëpp hmm? waaye comme Macky Sall lay waxal léegi Macky Sall moom mooy na comme ni ko Sonko waxee moom kenn du ko tudd ah immunité ba lépp Macky Sall moom bu la boo ko laalee wala nga wax ci ay waxam buñ la jël si moom ñu xool député nga duñu xool dañ ne naan ces yëpp te dafa am immunité parlementaire kenn waru ko woo di ko yóbbu di ko entendre sans ñu lever immunité parlementaire am comme nañ ko defee woon ci Sonko moom la ñuy def tey moom dañ koy yëkkati cas yóbbu convoqué c'est un député mais nag <laughs> ni Antoine Diome def ba génne Sonko ci liste yi sànni ci àll ba <laughs> tëgu ko fenn conseil conseil ñëw sànni ci àll ba Sénégalais tëgu ko fenn ah loolu dañ koy jëm muy neex ñoom dañuy def muy neex parce que lu ñëw rek ñu nekku yàlla baax na yàlla baax na ñu jàpp bari doole yóbbu par force di bëggoon jàpp Ousmane Sonko yóbbu. Ousmane Sonko dañ ko bëggoon a mbankaan yóbbu noonu lañ ko bëggoon def di ñoom seen yoon ñëwu ci lu ngeen leen nangu rek ñu sëf leen ko duñu ay nit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi may déglu di déglu samay wax te nekk ci biir réew mi ak nekk ci bitim réew mi nañu préparé li nga xam ne moo war a topp ci manifestation bi ñu def démb démb foo laa tolloon li ma doon wax dagg lii daa mel dama ko yëgoon démb ba may wax naan deuxième étape bi moom laa ko titré woon mooy ñu waajal suñu bopp génn rapidement pendant que yëf yi tàng na jipp jipp jipp jipp jipp jipp ñu génn ci réew mi ba Macky Sall dootul am fitu teg tànkam Sénégal loolu jërul waajal jërul waajal waa banlieue bi waay Guédiawaye Tëngéej Thiès Casamance nag mois de mars bi loolu yéen nag gars yi nag mois de mars bi li ñu defoon loolu loolu nekkul woon loo xam ne dañ doon xaar ndigal mois de mars kenn xaarul ndigalu kenn mois de mars kenn joxul ndigalu kenn mois de mars ku jox ndigal kenn kenn joxewul ndigal dafa am lu naroon a xew yëkkati ñëpp mooy Ousmane Sonko mi ñu naroon a jàpp def ci kaso bi moo yëkkati ñëpp loolu la de mais jox kenn joxewul ndigal tey ñu bëgg a buddi Ousmane Sonko sànni ko ne ko doo ci élection yi gaa yi da tekk taxaw di xoole ah baax bu ñu ko deful kenn du am jàmm ne gën gannaaw suba ñu jàppaat keneen rek bu gannaaw suba ñu jàppaat kenn six cent renseignements généraux la ñu génne démb ci suñu ndaje mi Antoine Diome li mu génne ci ay RG er ay renseignements généraux pour ñu dugg ci full back soo fu ngeen nekkoon taxaw dafa nekkoon ci ay renseignements généraux Dakar ak fépp mat nañu six cent seen réseau yi baaxul démb kuy xam ak jag wax jag lépp ñu di ko dagg onze radar yuy bruyé seen signal lañu tek aux alentours à 3 km de place de l'obélisk wërale ko foofu moo tax seen réseau yi baaxul onze radar onze bruyé lañ fa tek Moussa Fall la ko fa tek Macky la ko ko sant ak Antoine Diop jamono boobu seen réseau yi baaxul li véri di wax ngeen ñëw Macky Sall mi ngi téléphone moom ak Antoine Diom ñi ngi wax téléphone pendant 3 heures de temps ñi ngi wax téléphone di suivre en direct événement yi caméra yooyu ñu samp place de l'Obélisque caméra yi day joxe ci seen salle de surveillance yi seen PC de seen PC yi de contrôle yi nga xam ne lu mat ay onze xaw ma douze poste télévision fu nekk ay écran yoo xam ne yéen ñu nekkoon ci place bi yéen ñëpp ñoom ñi ngi leen doon gis di ci caméra yi Macky Sall di wax ak Antoine Diome trois heures de temps Antoine Diome ki ñoom Moussa di gérer à distance di di teg seen ay dispositifs di brouillé di yàq internet bi di teg seen ay RG ñu dugg ci biir moo tax da ngeen Ousmane jógee ne ñi ci suñu biir infiltré ñu pour bëgg jaxase carte gi pour que après bu paree ñu sëf ñu ko ne ñun ñoo indi fitna ci ndaje mi fekk ñoom la ñi ci suñu biir waaye bu paree na ñëpp ñibbi Ousmane xam na parce dañ koy xamal am na ay patriotes yu nekk ci bureau Antoine Diome ak bureau Macky Sall di woo Ousmane Sonko di woo keneen ak keneen ak keneen di leen xamal li xew. c'est ça autoroute autoroute bi ñetti autoroute yi dugg Sénégal xam ngeen ne tey yéen nag ci dëkk dëkk Dakar xanaa bu bu Dakar nekkoon sax ci dëkk Jurbel nga xam ne fu nekk la nit di génne mais catu Dakar presque la Dakar benn benn loxo bu lemu la Dakar. ngeen nekk 4 million comme 5 millions presqu'île de Dakar yéen Dakar képp ngeen no bay <laughs> yaa y a un problème quoi ku nekk naan nañu xaaree ki jotagul ak fu nekk lay jógee jinne yi la ñuy xaar ñu kos almet aco <laughs> dëgg-dëgg comprends rien moi yi ña nga fa woon en mode ibadu en mode Baye Fall en mode seriñ ay renseignements généraux ñu ngi seen biir loolu moom da ngeen koy adapte loolu moom da ngeen koy xam léegi ah yooyu moom il faut pas avoir peur ah yooyu moom xam nga ñun toppatoo wuñu loolu loolu dañoo ragal ma ci wax ak sama benn waay ma ko ñoom dañoo ragal ñu ñu ragal ñun lañu ragal mais ñun xamuñu ne ñoom dañ ñoo ragal ñoom nelawatuñu fi mu toll dañoo panique ñun ñi leen fa war a jëlee ñun yëguñu loolu loolu moo tax xeex bi yeex ñi fi war a jëlee nii ñoom dafa mel ne dañoo ragal ñi ñu fi war a jëlee ñi ñu fi war a jege ñoom dañoo ragal ñi leen fi war a jëlee kenn ku nekk da ragal sa morom loolu moo tax yëf yi yéex wallahi bu ngeen xamoon Macky Sall ak Antoine Diome ak Moussa Fall ñii ni ñu tiitee bu ngeen ko xamoon <laughs> bu ngeen gësëm gësam ñu daanu kumpa nekk fi nekk lu rëy ki ay tenue ki policier ki militaire ak lacrymogène tuñ fi ñoom ñëpp nguur gi jeex na ba noppi gësëm rek ko koy daanu kenn ku nekk yaa yen ñëpp yéen a ngi génne ay idée kenn ku nekk yaa ngi wax li ñu war a def kon xam ngeen li ñu war a def kenn ku nekk yaa ngi bind maa ngi lii seen commentaire yi nañ def lii nañ def lee nañ def lee yéen donc donc <laughs> ndigal kay amu fi li ñu war a def kay xam nañ ko du la ñuy wax lu ñuy jëf le li mu bëgg mooy bañ a organiser élection yi waaye dafa bëgg lay wuy tax loolu mën a am ba mu sëf ko opposition bi bu jàllul ci opposition bi parrainage bi nga xam ne indi woon na ko def ko am ñu ko attaqué cour de justice de la CEDEAO ku mel ne maître Tine ba mu demee CEDEAO jox ko dëgg mu indiwaat ko Sénégal waa Sénégal war ko jëfe ñu lànk na jëfe wuñ ko Macky Sall yi indiwaat ko ci jongante yi maître Tune dafa demaat ñaxtu ca cour suprême soo bu ñaxtoo ca cour suprême tontu wuñ ko de ñu ne pat ba tey tey jii nga xam ne léegi ñu ngi ci ay tolof tolof ñuy soog a woote audience ba ca cour suprême pour wax ci ñaxtu gam defoon ca yoon ba ko joxoon yoon na ko parrainage wut am Sénégal ni ñu ko defee jaaduwul dañ ko war a tegg jox ko ko ñoo ko am nga dëgg ci état Sénégal moom maître Tune mu ñëw jox ko état Sénégal Macky Sall ak ñoom ñëpp ñu lànk na duñ topp loolu te ñoom kat ñoo xaatim na ñoom kat lu cour de justice de la CEDEAO wax dañ ciy ànd ñoo ko nangu ratifié ko waaye nee nañ duñu ko def maître Tine nee nañ bu ngeen ko deful dinaa dem cour suprême du Sénégal clamé leen fa mu dem yóbbu fa loola boobu ba léegi tontu wuñ ko ñu bàyyi ba tey ñu woo ko ne ko tey lañ lay àtte ci sa clamation boobu ci sa réclamation boobu ci recours boobu mu dem fa tey ñu war ko jox verdict bi ñu ne ko déet da ngay dàq nañ dañ koy dàq ba le 23 juin ñu ko dàqaat nañ ko ba le 23 juin

fixé ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen wax ak moom pour manifestation bi ñu mën ko def parce que buñ ko def woon dafa dafa namm xeex ak ñun parce que lañ ko defoon mois de mars looloo ko metti ba fi mu toll nii jàpp na ne jekku na pare na ba bu ñu jekkoo bi yoon dootuñu ko dooleeti moom dafa bëgg a xeex ak ñun ngir pousse élection yi ndax Macky Sall dee moo ko gën a yomb fi mu toll nii def ay élection ndax def na ay sondage am xam na ne bu defee élection ak Yewwi Askan da koy ñàkk moo tax du def élection mukk bëggul élection la mu wax ak ñoo ñe doon wax ak moom ba mu autoriser marché bi loolee man xam naa ko yëg naa ko la mu bëgg nag mooy élection bañ a am waaye lay wi tax du mën a am moom la bëggul mu jóge ci moom ndax dañ ko koy tuumaal su boobaa dafa bëgg mu jóge ci opposition wala mu jóge feneen moo tax boo déggee ñenn ñi di wax naan yeewi wëtt a bokk bennoo bëgg wëtt a bokk koo dégg mu di wax rek Macky Sall lay liggéeyal def naa tey post sama mur bi ma gisee wal fajri ne les élections xawma lan les élections les législatives seront reportées trois points de suspension Ousmane Sonko la def les législatives seront reportées boo ko liree day mel ne Ousmane Sonko moo ne yi du am ma bind post laal la làppato yi ñëw waaw wal fajri ku wóor la wal fajri moom eh, la la la leen man attaqué wu ma wal fajri waxuma waxi Walfadjri de titre Walf Quotidien journal Walfadjri une bi ñu génn tey titre bi ñu def li ñu bind tey ci journal bu tey bi wax waxi Sonko pour Sonko ba noppi ne élection du am mu mel ne Sonko def na élection du am loola dafa am lu ñu bëgg teg ci kaw loosu Sonko di ko commencé génn di ko doxal ci biir bopp nit ñi ngir lan ngir que boo négee bu élection bañee am ñu ne Ousmane Sonko moo tax Macky dafa bëgg fu mu ko gàll. ñun dañuy communiqué ñun informé wu ñu dañuy communiquer wax naa leen ko daay man informé wu ma man pour bëgg a xam bu ñëw ci man man yi ma jàkkaarloo ñu ànd ak Macky Sall góor jigéen ñi ñooñu lay waxal Facebook ñooy ñoo tax ma ut ko mais utuma ko pour la photo yi mais dañ lay sonal nekk ngay wax duñu xam li ngay wax di topp la di commentaire lu ne ñu bind ko dañ lay sonal man Macky Sall laay waxal seen titre yooyu ñuy tiire di nasaxal xel nit ñi Ousmane Sonko li wax lu leer la bu ñu bokkul ci élection yi élection du am mais loolu wal fajiri bindul loolu néewul ne Ousmane Sonko dane bu ñu bokkul ci élection élection yi am daf ne Ousmane Sonko dane élection yi du am loolu la wax est ce que loolu la Ousmane Sonko wax ñaari wax yooyu xam nga bokkul kon ñi ngi jéem a togg benn ci xelu nit ñi ne Ousmane Sonko moo nar a xañ élection yi mu am te Macky Sall ci boppam moo ko bëgg waaye da koy def ba noppi nag ut kum ko sëf bu ñu bokkul élection du am bokkul élection du am Walfadjri def na élection du am te loolu Ousmane Sonko lu ko tuumal te Ousmane waxul loolu ma di ci wax làppata yu jóg kenn ku nekk di wax mais ba bref du ma taxaw ci loolu parce que man informé man damay communiquer nga dem xooli senti euh, Bougane journal Bougane La Tribune xool leen li La Tribune affiché tey Bougane moom nii nii lay wax mooy yu Abdourahmane Diouf it naa ci ñëw nii nii nga ruux karot waa aar Sénégal nii nii Benno du bokk Yewwi du bokk kenn du fi diir ci suñu kaw ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy wax Macky Sall la ñuy liggéeyal parce que Macky Sall parewul pour dem élection léegi dafa bëgg élection ñu pousse ko te pousse ko dafa war a jóge ci ku jóge ci Ousmane Sonko wala keneen ak keneen. waxam tuuma man li may wax li may wax dafa maa leer nañ nañ nañ nañ. léegi-léegi damay wax en parabole damay wax léegi di junj léegi du ma leeral damay wax wax ju gàtt ci internet bi junj su may junj ngeen xam ne waxuma ak yéen ndax làppata kenn du ko junj yéen xam nga waxuma ak yéen ñi may waxal du yéen su may insinuer di wax en parabole xam nga di bind ay deux phrases ci sama mur di ko sànni man damay communiquer information mooy gën a yaatu su ma leen informé damay def texte yi guddi expliquer lépp saa yu ngeen gisee ma def texte bu guddi gi sama mur damay informé bu neen gisee ma jël sama temps di détaillé di def di joxe ay détails di expliqué loolu information mais su may communiqué du ma du ma bind bind bi du gudd dama koy dama koy dama koy tënk kon du pour ñi nga xam ne ñoom mënuñoo tënki man su ma tënkee pour borom xel yi laay waxal waxuma ak làpp tey daf ne su voilà loolu la Walfadjri def lutax mu def ko xam nga ñun on est subtil on la finesse de la lecture et de la compréhension nous ne sommes pas des lapins. on sait lire entre les lignes on sait apprécier une communication on sait apprécier une information et on contextualise l'information jamono ñu toll ni amul lu ñu def lu anodin amul jambal su génnee ne dañ jàpp ay rebelle tout ça c' est pas anodin titre journaux yépp c' est sur commande tous les toutes les unes des journaux sont commandées les mots sont bien choisis virgule yeeg point yeeg tout est choisi par le palais par rapport ak objectif bi ñu am pour tenir l'image de Yewwi Askan Wi l'image de Ousmane Sonko ñun loolu dañ ko xam ñun duñu ay lappato donc suñuy wax lappato yu nekk suñu mur yi mel na ay yemb damay ut envie jël baygon pompe leen ñoom ñëpp ñu jóge fi

liru leen gis leen mu ne leen Dakar rejette l' agenda des LGBT Dakar la wax de mais Dakar rejette la agenda de LGBT maanaam Dakar dafa dàq bëgg-bëgg góor jigéen ñi Dakar ma gis ñu ñu def ko ci réseau yi ko nekk di ko bind man leen waa Dakar moom xanaa nit la Dakar mooy kan kon Dakar moom Dakar moom day bind ko wax naan bëgg naan bëgguma Dakar ma yaakaar ne ab dëkk la ndeka Dakar ab nit la. il faut mu ne Dakar nit la bay xàmmee góor jigéen ku dul góor jigéen waaw waa ji sànq am na benn ku sant njoon sama page bi na ma mu génne ko na ma tuy na daal di may yi mu ne ko wax Dakar moom mooy kan Dakar góor la wala jigéen wala góor jigéen la Dakar Dakar bi ne moom bëggul góor jigéen Dakar boobu góor jigéen la wala góor la wala jigéen wala lan la Dakar ba foofu Dakar bi ngay wax ban Dakar la bu dem ba ba Genève ne Sénégal xaw ma lan dañuy dàq góor jigéen dakaar boobu moom kan la man mosuma xam ni ku tudd Dakar nekkate am na ku tudd Dakar ci réew man mosuma koo xam. waaye Madiambal la ko bind ci journal parce que Madiambal amul fitt taxaw ne Macky Sall dàq na góor jigéen dana ànd ci Madiambal amul fitu taxaw ne le gouvernement de Macky Sall dàq na góor jigéen. Macky Sall amul futu taxaw ne ma Madiambal amul futu def ci journal ne Sénégal dañuy dàq góor jigéen du ko bind mukk léegi Dakar la ñuy jël tuumaal ko Dakar parce que ñoom kenn du ci tudd góor jigéen du Macky Sall du kenn gànna géey bi ñu koy accusé ba Macky defee poste ba gisoo ko mu bind ci LGBT du ko tudd Madiambal ñoom ñëpp kenn du ko tudd Ousmane Sonko rek moo ki taxaw wax ci wax ju leer naññ naññ naññ kon yooyu ñu tappale Madiambal di ko génne ci Le Quotidien làppto yi di ko tasaare di bëgg a sëlal nit ñi pour bëgg ñoo xamal ne Macky Sall day xeex góor jigéen te ñun gisuñu turu Macky Sall fenn fu mu ne moom day xeex góor jigéen Dakar la wax xanaa que léegi Macky Sall nekk Dakar waaye amuñu fitu assumé ne man Macky Sall chef de l'état man maay xeex góor jigéen ànduma ci amul fit bu ko def di wàcc léegi dañuy tuumaal Dakar parce que Dakar du nit dañoo fekk ku dul nit na moom bëggul góor jigéen mais ne góor jigéen Dakar Dakar rek moom góor jigéen kon bii Sénégal góor jigéen amul fenn kon Dakar rek moo koy xeex Dakar moom nit la day lekk ceeb di dem pare ka ñëw mais amul fitu taxaw ne man maay Dakar ngeen di dox ci xel ngeen di dox ci xel nit ñi parce que turu góor jigéen sañ leen ko tudd Ousmane Sonko rek ko ci ci kaw loolu ci laa ñëw ci Abdourahmane Diouf déglu ngeen vidéo am bi mu wax Maimouna Ndour Faye démb heureusement ba Maimouna Ndour Faye laaj ko ci mbirum góor jigéen parce que ñoom aar Sénégal yi ci aar Dakar yi ci bokk ñoom ñëpp koo ci koo ci bëgg mu daanu ba la ñoon ci élection yi rek laaj ko ndax moom pare na pour criminaliser góor jigéen waa wala déet bu leen sonnati yéen ñëpp réew mi képp ko amul fit taxaw ne man bu ngeen ma falee damay wote loi buy criminaliser góor jigéen ci dépp yi bu leen ko fal bu dee président la bu leen ko fal nattukaay bi benn nattukaay képp la léegi mbirum góor jigéen ndax mbirum góor jigéen ni mooy ñaareelu buum gi tey yi mooy buumu tubaab gi ngeen wax buumu koom-koom gi léegi buumu xaalis bi buumu CFA bi buumu alal ji ñuy jënd ci réew mi buumu usine tubaab bi buumu noot gi ñu noot bi yeeg maanaam mbubbu tubaab ñu sol buum gi léegi góor jigéen na mbubb mi góor jigéen la lépp ci la la xasu moo tax kenn du ko laal ñoom ñi ànd tubaab bi duñu ko laal Abdourahmane Diouf mii di layam layami mu ne docteur la mën na ko yow xaw ma docteur en quoi nga dama koo bind sànq ne ko Abdourahmane docteur yàgg naa ne wax réew mi dafa bëri ay docteurs yu feebar docteurs yoo xam ne mënuñoo faj seen bopp koy faj kenn ñu layam layam yi koo ci gis mu naan je suis docteur en je suis docteur en mais day faj te docteur bi njëkk man a mën a faj mooy docteur bi nga xam ne boo ko laajee mu tontu la ñu laaj ko nekk ndax yow man ngaa pare nga pour sa góor jigéen mu dem fi Tamba jóge fa dem Japon jóge fa dem Suisse ga mu xam war adduna bi wër a wër ci wax ci làmmiñ wu wax a wax a wax mënu laa wax ne moom pare na pour daan góor jigéen waaw wala déet tappale rek parce que ma nga ci biir lobby ba boo demee tappale rek du ci wax lu leer layem layem li daam mbooj di wax kooku kay léegi ñëpp xam nañ ko yooyu toogoon di wax de wax ju neex aywa docteur docteur Abdourahmane Diouf ay macha allah waay ay ma ne leen xalaat da ngeen accès gu ci cappaandaw ga moo tax Ousmane Sonko ñaari yoon génn na ko ci moins de deux semaines trois semaines ngeen dégg ko muy wax waxi góor jigéen mais comme ñu bari dañuy déglu mais duñu dégg ñu bari duñu jëli duñu ay nandite duñu ay boy town boy town day gaaw a jëli mais ñu ci bari duñu ay boy town Ousmane Sonko day wax mais gars yi dañ koy déglu ay ku sell ki ay ndigal doog la ñu xal ku sell ki fekk ku ki moom li mu bëgg mooy nga koy déglu ak xel ñu jëli li muy wax ak li muy junj li muy teg ci ko taabal ji nga jël ko toj ko génn yokk bi ci yax bi loolu la soxla ku sell ki loolu nag bari la wu ko malheureusement mais bu amoon rek tas tas àdduna bu amoon ñu koy dégg ci wax ñu dégg daaj kenn waxatu ko ndax mu yëkkati dossier góor jigéen taay di ci wax fu mu dem meeting yeeg yëpp fu mu toog loolu lay wax il assume parce que c'est un point fondamental la question des góor jigéen c'est une question centrale de nos rapports avec le pouvoir Sénégal kenn dootu fi falu te sa diggante góor jigéen ñi leerul te li ma leen wax campagne législative comme présidentielle question góor jigéen bi dafa une question centrale c'est la colonne vertébrale de fi Sénégal jëm suba question bi gën a am importance économique comme comme ak bay sàmm li ngeen wax question góor jigéen bi mooy question bi gën a fondamentale ci Sénégal désormais c'est comme ça comme les questions immigration nekkee une question centrale dans les politiques en France France élection mënta am te question immigration question racisme question front national yu nekk ci comptable bi pendant trente ans chaque élection bu amee France question bi ci gën a rëy mooy question immigration immigration mooy africain yeeg naa di jóge seen réew yi ñëw di jag ñëw di jëggaan si doole France loolu dafa naqari français yi ba loolu dafay am njeexital ci tànn gi tubaab yi tànn ku ñuy votel dañuy xool ndax kii bu ñu ko votelee dana mooy tëj frontière yi ba kenn du fi dugg nit ñi ñooñu duñu nit ñu ñuul ñi ak naar yi bari suñu réew loolu moo tax parti bi gën a rëy France mooy parti Front National muy parti bi ndaw si jiite Marine Le Pen parce que ñi ëpp ci français yi yu raciste parce que bëgguñu ñu bari ñëw jaxasoo ñoon ñu ñàkk seenu xeet jaxasoo bëgguñoo jaxasoo kenn loolu mooy réalité bi am France moo tax le premier parti le premier grand parti parti bi ëpp doole France mooy parti Marine Le Pen parce que ñeneen ñëpp ay coalition la ngi def ba mu des moom moom àndul kenn amul benn coalition moom képp la te fu élection ñëwee moo jël deuxième parce que dañ koy xeex question immigration ni mu nekkee dans la ni mu nekkee une centralité dans les problématiques politiques en France noonu la désormais question góor jigéen nekkee une problématique centrale dans le champ politique sénégalais dootu ñu fi fal kenn te taxawoo wax ci lu leer indi ay preuve yu leer ñu lay soog a jox suñu carte yi boo ko deful duñ la votel te Abdourahmane Diouf waxul lu leer li wax du wax dara waxi ku li mu wax li mu gën ci seen biir la bokk day làqatu la laqatu de te ñun Macky dañoo nax ñi bari nax nañu kenn dootuñu nax yeewu leen Abdourahmane juuf day naxaate maa ko wax tey li ma wax ni si moom musuma ko wax mais tey dama koy wax parce que dama am fu ma ko teg dama ko la làmmiñam ak sama nopp may mën a nduur fay démb ci question boo xam ne dama cee yàgg xeex li mu wax ci question góor jigéen bi su ko Ousmane Sonko waxoon ci góor jigéen ma génn wax lii ci Ousmane Sonko pour xamal leen du ko ay problème mu personne problème ay conviction yu ma am na problème mu comprendre enjeu ak dangerosité bi nga xam ne moo nekk autour de l' agenda góor jigéen damaa xam problématique yi nekk xam liñ ci laxas xam danger bi ci nekk pour réew mi xam ne réew mi mënuñu koo dénk ay loxo yoo xam ne amuñu fitu taxaw na ñoom dañuy xeex góor jigéen bu ñu ko deful Sénégal gépp góor jigéen ñoo ko gën a dangereux duñ ci jariñoo dara su fekkee góor jigéen jógul ci réew kon buñ ci fal kenn kenn kenn koo xam ne waxam leerul Abdourahmane Diouf li mu wax démb leerul digganteem ak góor jigéen ñi leerul Abdourahmane Diouf li mu wax du lu leer te du ma ko sosal ay waxi boppam ay bëgguma wote loi boo xam ne dañuy jàpp ñii di tëjëka di tuumaal parce que am na fi ñoo xam ne maa ngi doon wax ak kenn ay nit yoo xam ne ay kilifa lañu ñu leen tuumaal ci góor jigéen te na si yàqu patati patata yow dañ ne la ndax yow pare nga pour wote journaliste bi daf koo a ndur boo xam ne day gën a taral daan yi mooy criminalisation no mu waaw xam nga non bëgguma loolu parce que di tuumaal nit loo xam ne peut-être mais ñun voté nañ ah mais nañ fi cri voté nañ fi ay loi yuy criminaliser vol de bétail vol de bétail vol de bétail sàcc xar ak yi béy dañ koo criminaliser Abdourahmane Diouf la moo tax waxoo ci loi boobu la waxoo ci wala wala boog xar ak yi ñoo ëpp daraja nit ci réew mi gis nga gis nga góor jigéen gis na seen jikko yi bone gis nga dañuy fekk lu nit tiim ñu wàcce nit yëkkati loolu góor jigéen ñi xar ak bëy la ñu gën a jox àq doomu aadama góor jigéen ñi loolu maanaam lu yàlla dara yàlla dañ koy wàcc jikko yi bon lañu am yu sew yow seen làmmiñ nag lu neex di wax ñu dem criminaliser sàcc xar ak sàcc bëy ci réew mi ku ko def crime la dañ daan daan yu tar ñu ne ak lan ñu ne ku sàkku jigéen siif ko sàkku ko ci forcé te nanguwul dañ crime la dañ lay tëj daa ñuy métti Abdourahmane Diouf du wax ci yooyu de waaye biñ ko laajee ci wàllu góor jigéen daan yeen cay teg muy criminalisé loolu moom am na ci lay loolu moom damay ci théorie wax wër ak yow wër wër wër wër wax wax joo xam ne waxul dara li mu wax man mënu ma cee ajum ngooñ li mu wax yëpp jéem naa cee aj sama ñaari saako ngooñ yi mënu maa fexe ba aj ko xaw ma lan la bëgg ndax question bi da koo bett te foogoon na ne kenn du ko laaj nañ ko ko laaj moom laaj ko Thierno Alassane Sall laaj ko candidat yëpp liste buñ ci mënti doon daañu xam ndax nit ñi pare nañu ku nekk góor jigéen waaw wala déet moo tax Abdou Bara Mbacké Dolly démb dégg ko ci meeting ba mu ne moom premier loi ba moo koy porté moom loi bi xeex góor jigéen ñi moo koy porté fit woowu mu am gis nga la mu wax démb moo tax ñu xëy tey jëli ko mu wax naan Macky Sall day sàcc suuf de moo tax jëli de la mu taxaw ca kaw tribune ba ne loi bi de xeex góor jigéen bu ñu faloo ñun yeewi askan wi man Abdou Mbacke Bara Dolly maay loi bi maa koy def sama tur maa koy yóbbu ca assemblée ba ko ñu wote ko loi bi ñuy njëkk wote ci assemblée bi mooy daan góor jigéen ci wax jooju mu wax démb moo tax tey procureur xëy jëli ko moom Abdou Mbacke tey la ko ma waxoon na ko fi sàcc suuf Macky Sall gi waxoon na ko fi waxaat na ko fi dégg naa ko kenn mësu ko jëli waaye baatu góor jigéen bi nga xam ne moom la yëkkati démb ca meeting ba ne daañu leen daan ci réew mi te loi bi nga xam ne moo leen di daan man Abdou Mbacke Bara Dolly maa koy yenn ci sama loos yóbbu ko ci assemblée ba mooy dogal bi ñuy dëkk a jël comme loi loolu moo tax tey février Macky Sall ne ko dama jëli ko loolu kenn du leen ko wax dañ naan wooy sàcc suuf loolu lañ leen wax dañ leen di nax parce que yéen toujours rek dañ leen di nax li xew du ngeen ko xam mukk dañ leen di sànni benn yax ngeen di seen yaakaar ne yax bi la fekk am na ay lupp ganaar yu tàng yu nekk fële ñoom ñuy lekk ganaar bàyyi leen ak yax ngeen di seeñ li xew di ngeen ko xam mukk ñi tax ñu jëlee Abdou Mbacke Bara Dolly tey ba koy yóbbu di ko xooqatale yooyu naan di nga naan ma nga ca xuma fan dikk xuma fan yéen wax yi tappale yooyu di ko entendre góor jigéen yi mu laal ñoo jóg gis nga loolu mu wax Abdou Mbacke Bara Dolly gis nga loolu mu wax bu ko sëñ Muntaxa waxoon dañ koy jëli yéen xamu leen góor jigéen nañu amee doole ci réew dañoo nekk di ñu menace dañoo nekk di suñu dund lañ la rek dañ ñoo nar a xoqatal góor jigéen te Macky Sall mooy seen kàngam ci réew mi li li Abdou Mbacke Bara Dolly wax bu ko Mbaye Sy Mansour waxoon wala wala wala wala euh, Mbaye wala Mbacke wala kële euh, ndul sax Mountakha Mbacke dañ koy jëli ndax ñoom toppatoo wuñu ay Mbaye Sy Mansour rek Mountakha Mbacke ñoom toppatoo wuñu yooyu te ki moo leen si toogal Abdourahmane Diouf naka jekk mën a kii bëtan yi muy layal layal ba kanam bii tey leen ci mbiram di kii tey leen ci mbiri Abdourahmane Diouf borom a waxuma ñaareel waxuma ñetteele tey leen ci ay mbiram waaw loo ko déggee muy aawale laa ne kii nañ ne tekk rek waaye ku wax feeñ ku wax feeñ nan du nangu góor jigéen waaye du ma criminaliser góor jigéen nee na nanguwul góor jigéen ci réew mi waaye nag loi bi nga xam ne moo lay daan moom du ko wote lii de la wax waaw léegi kon yow foo taxaw de lu bon la d'accord nga ñu lu bon la moo tax nanguwoo nee na nee na du ma ko daganal mais ne moom day wax ci charia ni ku ñu charia ci république lañ nekk lu ñuy nangu la ak lu ñuy tere gis nga gis nga gis nga jeu de mots yi mu joué parce que am na rhétorique moom man naa wax ku yeewu la ku am làmmiñ wu neex la dalay nax ci wax nee na man duma ko daganal duma ko daganal waaye duma ko criminaliser gis nga jeu de mots bi Macky Sall bañ ko waxee criminaliser moom dafa dugg ci ay jeu de mots moom Macky ñoo bokk position ci nguur jigéen gi moom Abdourahmane Diouf position ak position Macky Sall benn la dañuy jouer ci suñu xel yi parce que jàpp ñoom dañoo jàpp ne ñun ñu intelligent wuñ ñoom dañuy jàpp ñun ay làppato lañ moo dañ ñuy jéem a nax ci wax ci laaj nañu neex di joué ci mooy duma ko daganal waaye duma ko criminaliser lan mooy daganal lan mooy daganal ci république daganal ci république mooy loo xam ne nangu nga ko mooy loo xam ne nangu nga mu am mooy loo xam ne autorisé nga ko loolu mooy daganal ci république waxuma ci charia mais daganal mooy loo nangu ne mën naa ne loolu mooy daganal bi bu fekkente ne nga bëggoo koo daganal nag da nga koy tere te gi mooy loi bi nga war a jël mooy criminaliser ko moom nee na du def lii du def lee kon kii nañ ko yóbbu ki docteur Jiji mu xoolal ñu ba xam day jël ay garab Abdourahmane Diouf nañ ko yóbbu accusé wu ma ko waaye nañ ko yóbbu ki docteur Jiji docteur Jiji docteur la moom moom Abdourahmane Diouf nee na docteur la xaw ma docteur lu mu doon waaye Jiji moom xam naa ne docteur la en caratologie Djidji moom c'est un docteur en carottologie moom ku ko kuñ ko yóbbul dana xam ndax kii day jël ay carottes ci suuf ah parce que suñ baaram bàkk doolu nee na moom Macky Sall day sàcc suuf ma ne ko waaw mais am na ñeneen ñoo xam ne dañuy sàcc carotte parce que sàcc suuf ak sàcc carotte sorewul li li Macky Sall wax benn moom Macky Sall ñoo bokk ay taxaway ci nguur jigéen gi moom Abdourahmane Diouf bi nga xamne mo moo nekk ci coalition ar senegal ma tuddé ko ar Macky Sall wax mo tax béttu ma mo Macky Sall ñu bokk ay mbuur parce que Abdourahmane Diouf ak Babacar Ngom bi mom Sedima ñoom ñaan ñoo dañoo bokk ci ay mbir yu bare bare bare bare bare bare te Babacar Ngom ak Macky Sall duñ tàqali ko Babacar Ngom ak Macky Sall benn lañ mu roog solo la Diouf ak Babacar Ngom ben lañ ak yeneen yeneen yeneen bu ñu demee ba ci kanam lépp dina feeñ bu ñu jógul xeex jëlee fi Macky Sall ñoom ay Abdourahmane Diouf ak ay layam layam yii toog seen sëriñ see ñëpp ngeen di ñàkk ndax ñoom góor jigéen ñi ñoo ëpp doole Mountakha ëpp doole mbay Sy Mansour loolu moo tax Mbaye Sy Mansour rek Mountakha ñeme wuñ ci yooyu yàgg duñ ci wax man maa leen ci ëpp fit man man li ma ci sañ wax. ci góor jigéen yi mbay si Mansour sañu ko Mountakha Mbacké sañu ko Maye Niass sañu ko kenn sañu ko ñoom ñëpp maa ngi leen di défier kenn du ci wax man maa ci sañu wax man lu ma benn taalibe mais ñeme naa wax ci góor jigéen ñi ñoom yoo taalibe yi ñeme wuñ ko kenn du ci wax kenn ci wax loolu moo tax may xeex damaa xam doole bi nekk seen biir ak not gi ñu nara a ak karaf yi ñu nara a rox ci suuf ak ni ñu nara a yàqee suñu jikko yàq suñu diine yàq suñu àdduna ñoom góor jigéen ñi looloo ma metti moo tax ma taxaw di jihaat may xaru man li may def ni du dara ci mun taxaa mbàkke ak mbay si Mansour de ñu ko du dara ci ñoom du dara mais du ko def xam li tax du ko def waaw ba kañ dama leen di laaj lii ba kañ dama bëgg léegi ngeen dimbali ma parce que man maa ngi wax wax ci bari damaa bëgg léegi sax noppi ngeen dimbali ma wax man man nu may def yéen ñi may déglu yéen lii may wax ni lu ngeen ci xalaat lu ci pexe dimbali leen ma démocratie concordance xam nga ñoom dañuy toog ils ont l'art confectionner des mots ay démocratie concordance te yu xam xamul yoo xam ne mooy la Cheikh Anta Diop doon wax rek ñu ñëw toog naan docteur la ñu patati patata làkki tubaab jël ay concept di ko boole di ko taqalee mu am benn résonance am benn consonance am benn pertinence xam nga rek ñu laxas bopp nit ñi te li ñuy wax yëpp boo ko tàmbaree ci làkk wi nga xam ne moom nga dégg te mooy wolof ay ndaxasa xandaŋ dong lay doon boo ko càmbaree ba teg ko ci làkk li nga li nga dégg yow ba teg ci ko da ngay fàq sa yatu kel moom ma ko doon làkk ci du nga duur ko ko ci loosu loosu damm ndax ay naxas ak xam dañ dong la lay làkk te Cheikh Anta leen wax loolu te Cheikh Anta bu leen gën a dégg tubaab fuuf gën leen a xam tubaab te Cheikh Anta xam ci tubaab te Cheikh Anta tubaab bi maami Abdourahmane Diouf jaaru fa ak tubaab da dañuy toog télé yi di làkk tubaab yoo xam ne seen tubaab bi sax baaxul sax dégguñu sax tubaab ay Anta leen gën tubaab fuuf te taxul mu taxul mu weddi boppam xeex rek wax naa leen ko ci laay suñu xeexul ñun ñëpp ay góor jigéen la ñu doon Muntaxa Mbàkke du ci wax Mbay Si Mansour du ci wax Maay Ñas moom bu ci wax Soudan la ciy waxee ji mais Sénégal moom du ci wax day dem ba Soudan li gën di mbir waaye Sénégal moom du ci wax fasalu ma kenn nag li may wax moo am de su fekkee li may wax amul ngeen dama amut li may wax man na naqar yéen taalibe laapato yi mais man li may wax moo am maay ñes góor jigéen gi da ngeen dégg mu yëy ci yàbbi dem na ba Soudan di jubóole ay nit ba ñu indi ko mu mel ne ku jóge ci yàlla ñu ne dafa ñëw da héros la ma ne waaw ku mu doon jubóole ñu ne ma ñaari nit man leen ñan la ñooñu luñ jote lan mooy compte rendu bi ba léegi man xawma li xew Soudan ak ñan la waaye nag bu ko defee ci biti na ko def ci biir fii ci réew mi dañoo soxla ku mel ne Maye Niass mu jóg taxaw wax ñu ci góor jigéen gi wax ñu ci Macky Sall de réew mi ak Antoine Diome ci magistrat yi nekk conseil constitutionnel moom Maye Niass dañoo soxla mu wàññi taxawaayam ci ndax dafa am njaboot ci réew mi am ñu ko gëm ñooñu na nga woon démb ca biir manifestation bi di manifester Cheikh Omar Diagne ma bokk ca moom Cheikh Omar Diagne taalibe de kër Baye Niass ma ca kaso ba te góor jigéen la doon xeex ba dugg ci kaso bi dégguma Maye Niass yëkkati yëy ci dem ba Soudan di lijjanti ñoo xam ne duñu Momar Diagne bokk cëpp ñeseen googee bàyyi ñes di sëriñam muy xeex ak góor jigéen ba dugg ci kaso sëriñ maay ñes yéyitu yàbbiwu ci loolu man maa leen koy wax ndax yàlla rek moomum dëkk yàlla rek moomum dëkk waaw ah, te bëgguma deyaaleeg lu ngay xalaat te ñu ma ko wax ñaaw njort ci nit gi wala may wax loo xam ne dama koy wax ci suuf di ma ko nëbb li may wax nii dama bëgg mu dugg ci nopp maañee comme xam ne déwuma li may wax Mountakha Mbacké damaa bëgg mu dugg ci loolu moom xam ne jëwuma ko wallahi al su ma leen tiimoon direct lii laa wax su ma toogoon ak Mountakha Mbacké lii wax wallahi al azim ma ci wax yéex ma toogoon ak Mañes wax ngeen di dégg moom laa koy wax direct muy dégg mbay si maasu moom lii ngeen di dégg loolu laa koy wax parce que raagalu ma leen yàlla dëgg laa ragal te jàpp naa li dëgg la bu dëgg ngeen mu dëgg su ma su ma ko waxee dañu dëgg dañu waxante dëgg yéen ñii dee ci wurut dee ci naafeq wurut dee ci ay fen wurut dee ci ay tappale wurut dañu waxante dëgg préparons les troupes l'heure est grave wax boobu yu ma neex la ci bind li ma loolu laa bëgg a dégg jamono yi loolu rek laa wala ngeen sentir na sama yaram dafa tàng démb dama am mbégte waaye Macky dafa xëy yàq sama mbig parce que Macky bëggul benn sénégalais bu am mbégte bëggul suñu jàmm bëggul suñu aafiya bëggul ñuy féex saa suñu amee ndam du am jàmm balaa am jàmm mooy dina fexe ba yàq ndam ci jëf ju bon passé xalam dégguñu gaay yi dégguñu jat bi may nekk xale ablay mbey Mbaye Peex mii Ablaye Mbaye Peex am dafa amone fas fas bo xamne ne sa ay càq dafa ko décoré ko fas bu rafet fas bo xamne fas fas fasu fas fas bu rafet fas bi da daan fecc fas bi da nga da ko togal mu tok jógal mu tok motax bi nga ne cax fofu la ko xamee ma nekk xalé parce que suma ma ñew suñu kër papay ablay ndey té da bu ma saan ñëw suñu kër léegi naa la fas bi su ñewé nak ma nekk xalé ni ñu mu yéeg ci fas bi di wacc di fecc fas bi di fecc muy tëkk sukk jël kër kër foofu laa gisee ne ndekete fas yi sax bo leen bo leen yéré tagat leen sax dañuy dañuy dañuy réagir comme ay nit jogal mu jog togal mu tok fofu la ko ñu gisé avant ma ñu tuwa bi ba gis tuwa bi ni ñi dressé sen animaux yi xar yeeg pas ya ganaar yeeg xaj yi tubaab bi dañuy intéressé ba ñu ñoy gën nekk bis mus mus mus tubaab bi boko indi won Sénégal boko yone marché mu demal la marché ndugal la indi la sa ndug mus tubaab ak xaju tubaab xaju tubaab tubaab bi yer nañ tagga nañu tàgg boo xam ne boo ko takkalee ci baat bi xaju tubaab jox ko keuy li nga bëgg ci marché ndug jox ko xaalis ne ko demal ma marché xaju tubaab mu demal la marché ndugal la indi la sa ndug xaju tubaab Sénégalais bi mo Sénégalais bi dang koy jox xaalis jox ko pañe jox yi mu dem ba ci marché ba du xam lu muy jënd moom Sénégal bi mag la de day def ba marché ba du xam lu muy du xam lu muy togg du xam lu muy jënd xaaju tubaab bi boo ko yónnee marché mu dem indil la sa ndugg lii may wax léeg ma nekk ci politique bi léeg ma laal ci sëriñ ci léeg ma laal talibé yi parce que tous est interconnecté dund dafa am ay interdépendance interconnexion interaction suñu yeen yeen ko wax seen dund gi yeen dafa am pas-pas bu gi ne am lekk ceeb am takki jabar am auto, am ndox am sabu, jamono bu nekk yeen seen yaram dafa am lu muy laaj am jamono boo xam ne ngeen soxla sëy am jamono boo xam ne ngeen soxla suñu yëre am jamono boo xam ne ngeen soxla naan ndox am jamono boo xam ngeen soxla dem am jamono boo xam ngeen soxla dem Tuuba ak Tiwaawan jamono bu nekk seen dund dafa am lu muy laaj loolu lépp nag boo ko loolu mooy seen dund yéen ñëpp léegi dund googu nag bu ko bëgg régler doone rek dama ko régler ci politique bi Macky Sall fekk Macky Sall la doxal ak ki Mbaye am fu ñu jokkoo te di def loo xam ne yéen te jëf day am conséquence ci seen dundin donc bu ngeen ko bëgg a réglé ci Macky Sall képp képp kepp képp mu taxaw lant na faalewu leen di dem ci tubaab bi di wax xooqatal leen ut ay fetel nag leen a duma te mënu leen koo réglé ci Mountakha Mbacké ak Mbaye Sy Mansour seen am lu ci manqué kon man su may wax man du ma am frontière ci Macky Sall gis na ni may waxee ci Macky Sall à l'aise auma ci jafe-jafe li may wax su ma yóbboo ci Mountakha noonu laay duggee ci Mountakha ma ci am fu may taxaw auma frontière ndax dëgg gi may topp mooy mooy janax ji may topp rek man janax ji rek laay topp bu tëbee mu tëb bu duggee mu tëb muus mi dàq janax ji soo ko teewul janax ji ndax dafa ñuul wala dafa reex moom janax dong lay topp bu janax ji duggee ci pax mu dugg ci pax mi bu mu génn bu duggee ci pax mu duggaat ci pax bu génnee mu génn man noonu la mel man amul frontière yi kii mën na maa wax ci moom lii yëpp kii mën na maa wax ci moom rek kii Mbàkke la sant kii si kii Macky Sall man topp tawuma loolu man dëgg rek mooy li nga xam ne moo may jidee ci sama ay réflexion ci sama ay position Mon oh mon frère, il meilleur. Je suis à l'aise. Hein? te boo nee damay xeex ah damay xeex Macky Macky yooyu waaye bien ñun ñëpp ñu xeex Macky Sall ñun ñëpp ña nekkoon démb place de l'Obélisque moitié bi wala ñi ci ëpp ay taalibe leen Touba Tivaouane Yoff tarixa yëpp seen taalibe ñoo fa nekkoon di xeex loolu wóor na ma. gis ngeen ni ngeen ci daj coono ba paas ba ñëw taxaw tàngoor waak yuuxu waak lépp te sax jàmm na ndax xeex amul. bu xeex amul lacrymogène ak fitna yëpp ci seen kaw dana metti waaye da ngeen ko dikk ndax lan bëgg lu baax ak bëgg lu yiw démb daje bi mënoon naan nekk daje xare ba da ci yéen waaw mais bu tey da ngeen di teew ndax ñëw ngeen wane seen pas-pas mu lu ñu rafetlu loo xam ne ci dëgg-dëgg macha allah waaye démb bu ay bal tàkkoon ngeen deexoon fa ana mun taxa mbàcc bu fa ay bal ngeen dee fa ana mbay si Mansour bu fa ay bal tàkkoon ngeen dee fa ana Maye Niass ma demoon Soudan di leen jubóole bu fa ay bal tàkkoon ngeen dee fa ana waa Thiénaba ana waa Yoff ana waa Medina na ana ñu ana ñu ana ñu gis leen ci kenn pourtant ne ngeen ñoom ngeen yaakaar yow ma xiyaam yow ma xiyaam nag foofa weñ du fa naaw foofa kenn du wax foofa yàlla moo yor ordinateur di bës ci bouton lépp dox kenn du fa wax ndegem fii lañu nekk Macky Sall tëju gisu leen Mountakha gisu leen Mbaye Sy Mansour gisu leen maa leen kenn mastalu astomac bu ngeen taxawee ci kanamu yàlla ëllëg war a lay fu ngeen jëm ubbi leen seen xel yi ngeen xool ñii ngeen jox seen bopp àdduna ak àllaaxira ñu nekk fi te àdduna bii mënuñoo fexe ba mu jag ci yéen mënuñu leen koo jagal bu ëllëgee bu ngeen tasee yàlla ak ñoom ñii duñ leen tal ci seen bopp la ñuy nekk ndax foofa yéen ak ñoom a fay yem ci kanam yàlla ku nekk day buuxante ku jéggi si raat suñu fii ñuy lijjanti ño mën a yéen a ànd de ngi xeex jàmbaar ngeen taalibe yi te dëgg-dëgg yéen a ngi xeex jàmbaar ngeen mais seen sëriñ si fekk si wuñ leen xeex bi wala boog bu ñëpp ñenn ñi fekk si wuñ leen ci xeex bi wala buñ ko def ci suuf lañ ko def mais duñ ko yëkkati ci kaw lu tax lu tax xeex bi duñ ko bëral am na ki nag ñu ma dégg ñenn ñi ci dëgg-dëgg yëkkati nañ ci am solo ma rafet lu ko leen ci gërëm bu baax a baax a baax leen sant parce que tamit na ci benn benn yoo xam ne ci dëgg-dëgg dégg naa ñu wax ci seen kanamu borom macha allah. waaye ñu ñëw ñu ñàkk ñëw ñu ñoo ngi ci waar wi taalibe yi làppate yi ñun daal sëriñ fi ñëw ñoo ngi xeex buñ ñëw li ñoo ngi xeex waaw yéen da leen a déngoo seen àdduna pour ñu jagal ko ak seen àllaaxira ñu téye seen àdduna téye seen àllaaxira ba noppi nag bàyyi leen ngeen wëlbatiku di xeexaat seen àdduna yéen da ngeen a dénkaane seen àdduna ba noppi di ko xeexaat la ngeen dénk sëriñ bi mooy seen àdduna ak àllaaxira yéen a ko wax loolu mooy jébbalu ak joxe sa bopp koo jox sa bopp àdduna ak àllaaxira ba noppi wëlbatiku di xeexaat ci seen àdduna mu jag kooku li nga ko doon li nga ko doon nga dénk sa àdduna xanaa dénkoo ko sa xanaa mayeko ko ko xanaa joxoo ko sa àdduna rek pour cadeau yow nga yow nga nekk làppto xanaa àdduna bi boo ko dénkee da ngaa jàpp ne moo la ci man moo la ci ëpp sañ-sañ la mu ca man pour mu jàkk yow mu yow mu yow mënoo ko maanaam dalaa mënal ci sa àdduna loo xam ne mënuloo ko sa bopp ba tax nga dénk ko sa bopp loolu laa jàpp loolu laa njort ndax nit kat di fecc yàlla naa dee yàlla naa dee kenn du ko fecc sabar bi tëgg yàlla naa dee mag du ko fecc kon mag boomee bu demee ba fekk sabar guy tëgg yàlla naa dee da koy romb bàyyi ko fa dem fekk sabar guy tëgg yàlla naa dund yàlla naa dund yàlla naa dund mu ne ah kii sabaram ji neex na xaaral ma fekk ci yéen ñu joxe seen bopp dama yaakaar ne ba ngeen seen bopp da ngeen bëgg ku leen tànnee ki a mën a dimbali ki seen bopp moo ko fii ci àdduna waaw boo joxee ñu sa bopp mu noppi nag wëlbatiku nag la nga ko joxoon mu toog ci ba mu ne ba mu lem sa bopp nag nga war a jógaat nag yow àdduna jag kon li nga dénkaane moom fu mu dugg li nga dénkaane pour lan la li nga dénkaane pour lan la waaye comme deme ne noonu bu leen découragé nañu ànd man ak yéen ñun ñëpp yéen taalibe ñun ñëpp nañu ànd xeex dénkaane ngeen waaye ñi ngeen dénk <laughs> ñoom da ngeen a fëgg ñëw di laaj dénkaane bi ñu tàngal ne dañoo tëju dañoo fatu da ngeen a ñëwoon jël si dénkaane bi ñoom dañoo fatu waa ngeen ñëw ñu xeex man moom maa ngi man moom fatuwuma ngeen ñëw ñu xeex rek ñu xeex pour dund maa ngi fi dañu xeex ma bëgg ngeen yeewu taal seen xel yi yeewu jël seen xel yi teg ko ci kaw taabal ji tiim ko faram fàcc ko ubbi ko xool lii seen njariñ fii ak lii seen njariñ ëllëg ngeen teel ko seen bopp gëm seen bopp gëm yàlla wóolu seenum xel wóolu seen bopp ngeen jéem a jóg ñu ànd tabax suñu àdduna waaye tabaxaale gi suñu àllaaxiram ndax mën nañ ko amul benn mbindeef bu mënta tabax àddunaam ak àllaaxiram bu mënu woon a nekk yàlla du ko yàlla du ko du ko sëf jëf waaw amul benn mbindeef boo xam ne amul capacité mën a lijjanti àddunaam ak àllaaxiram amul nit ku yàlla bind ku ne def na ca nit kookee lu ko mën a jagal àddunaam ak lu ko mën a muccal àllaaxiram yàlla def na ko ci jëmm ju ne xanaa da ngay ñàkk xam sa bopp yàlla def la nit nga def sa bopp to tàyyel ak bañ a sonn ca la nga xam ne moom la yàlla dëxëñ ci sa biir jëmm ji nga war koo sonn pour xam loolee téye ko pour mën a defar si fii ak sa fee tàyyel ak gis koo xam ne moom jéem na ci boppam loolee ba mu teel ko gis ko muy dem nga ne ah kii de moom réussir kii de moom réussir na waaw mais na mu def ba réussir doo ko defee réussir doo ko def da nga daan xaaral ma dem na nangu ci mu yóbbaale ma oto bu dem la dama damaa paan xaaral ma na nangu ci oto bi mu yóbbaale ma loolu dañu bari def loolu mooy ak cogg cogg googu nag moo ñu yóbbali lépp ba Macky Sall nekk suñu ko moom i cogg di dóor mu dox comme nañu fagaru nañu jóg nañu taxaw ci ni mu gën a gaawee amatul xaaj xaar amatul wàcc amatul dara dara dara dara dara amatuñu lu ñuy xaar waxtu wi weesu na li ñu waroon a lijjanti bañ ko war li lijjanti du tay lu ñu gëna tok di gëna xaar ñu gëna tardé ñu gëna compliqué di gëna jafé ci ñun dégg na leen sànq ñu naan dañuy def point de presse comme conférence de presse waa aar mati ci xawma contrat de législature contrat de législature bo xam kenn ci ñom muy Abdourahmane Diouf démb biñ ko laajee ci mbirum goor jigen daf ne du ci ton tubaab démb ba ñu ko bako may mën a si Diouf laajee may mën a ndur ndur fay bako ko laajee démb daf na bayyi ba suba tay bayyi ba suba nga ñëw ca ndaje ma daañu la wax dafa doon daw question di bëggu ci wax may mun a insister mu wër mu jël may mun a teg ko ci laafam yi naa moom wër adduna bi mais na ma laa ko ñëw taxawat na cëpp may mun a ne ko en sama tontu bi mu ne ko tontu la kay fek tontu bu ko lu ko wërloo adduna ñëw taxawat mom Abdourahmane Diouf waaw nga ne da ngay def contra de da ngay def lan contrat de lan da ngay def lan contrat de législature <laughs> subhanallah da ngay wax yu rëy contrat de législature ay na sax ma ne leen ba tey d' accord boo fa newoon de li ma leen di laaj mooy Abdourahmane Diouf yow góor jigéen ki d' accord nga pour ñu criminaliser ko waaw wala déet ci contrat bi ndax mën nga cee dugal criminalisation de de de l' homosexualité Antoine Diome Euh, Abdourahmane Diouf plutôt Antoine Diome moom boo tudd góor jigéen ñu tur bi ñëw da nga xam ah Abdourahmane Diouf ndax sa contrat de législature bii ngay wax di ko di ko di ko mbelle mbelle di ko siiwale te di di nax Sénégalais yi ndax waaye poñ bu njëkk ba ndax xaatim nga ca biir na bu ñu faloo bu gën ñu falee député dogal bi ñuy njëkk a jël mooy wote loi bi criminalisé bi daan góor jigéen ndax def nga ko ca biir contrat de législature ba yaakaaruma ma nga ci néew ci yaakaaruma ko maa ngi ko xaar da ngeen ko publier maa ngi ko ya waaye yaakaaruma mu nekk ca nekku ci de wa legi kon yow da nga ñu nax da nga ñu bëgg nax yow da nga ñu bëgg nax ba falu ànd goor jigen ni comme Macky Sall di tous muy dox suñu doom yépp tabbi ci ak goor jigen kan. subhanallah Abdourahmane Diouf parti awale di nek ci biir coalition ar senegal lañu tuddee seen bop ma tuddi leen ar Macky Sall na ngeen leen moytu bu baax baax mu ma Thierno Alassane Sall fi ay Thierno bokku Macky ay ñu kenn xamul kenn mo fa jup kenn seen coalition bobu kenn fa jup wala ñaar wala boog ñett ñett nit laa xam ne ñoom ñu ñu constant kenn ci Ibrahima Ndiaye tudd partem la yor bokk woon ca manifestation ba démb ma nga woon plateau Nobilis moom dong moo génn aar Sénégal dem ca manifestation lu tax parce que jàpp na ne la ñuy manifester intérêt Sénégal la intérêt général mu ñëw taxaw Ibrahima Ndiaye képp moo jógee aar Sénégal dem ca manifestation démb te dafa am lu mu gëm ci ay principe lay dox Ibrahima Ndiaye gannaaw moom am na ku ñuy wax Montaigne xaw ma moo ci xaw a tane ak so Marème Soda xaw ma waaw Marème Soda ak Montaigne ak Ibrahima Ndiaye gaynde yooyu nekk seen biir te sangoo ay doon bukki gaynde yi nekk seen biir sangoo ay doon bukki moytu leen leen bu baax a baax a baax Montaigne Ibrahima Ndiaye Fodé Marème moytu leen gaynde yi sangoo doy bukk yi seen biir Thierno Alassane Sall Thierno Bocoum xam nañ Macky Sall bu baax a baax a baax ak Abdourahmane Diouf Idrissa Seck ak Macky Sall ñu ànd mbiroog soow Idrissa Seck ak Macky Sall mbiroog soow ñoom dañoo ponse def mbiroog soow Idrissa Seck waaye ñi génnee ci ñoom ki génnee ci Macky Sall muy Thierno Alassane Sall ak Thierno Bocoum ak Abdourahmane Diouf mi génnee ci Idrissa Seck soow ponse mburu ak soow Abdourahmane Diouf ak Thierno Bocoum ñoo jóge ci fan ñoo jóge ci soow Thierno Alassane jóge ci mburu muy Macky Sall Macky Sall lañ indi dañoo ponse ñii dañoo lacciri ñii du ponse fee mburu ak soow la fii lacciri la kosom lacciri sama mbokki xalbulaar yi xam nañ li may wax Thierno Alassane Sall Thierno Bocoum Thierno Omar Sy Abdourahmane Diouf ñoom njambaanu posom lacciri lañ def ñun posom lacciri moytu leen leen loolu leer laa leen wax yow Ibrahima Ndiaye yow Marème Soda yow euh, xaw ma député Montaigne moytu leen ma bukki yi sàngoo dara gaynde loolu leer laa leen wax de da ngeen na waxoon naa leen ko nag mbay pex suñu ko la daan ñëw boobu moom mbay peex moom léegi jamono ma neex ma papa mbay pex xam na moom bu ma xam na mbay peex ña nga dëkk tal peextaal xam na mbay pex xam na papaam na fasu rafet fasu bu mën fasu fasu fasu bu ci fas bu siluise ba njëkk gis fas bu nit fas bu ñuy wax muy melni nit ñuy wax muy toog ko jóge ko di fecc ko di jóge ko dal da ngay wax ak mom muy muy muy obéir fas boobu laa ko njëkk gisee papa yi Ablaye Mbay peexoo ko amoon boobu lu ndaw la député Montero mu ngoog waaw moom ak Marème Soda ak Ibrahima Ndiaye moytu leen de de gars yi dama leen a xama xama xama yëpp lay waxal na moytu leen waa coalition aar Sénégal Sénégal yéen lay waxal de aaruñu Sénégal de ñoo xam ne dañuy aar Sénégal te mbirum góor jigéen gi nanguwuñ cee wax kii aar Sénégal mooy kii daan góor jigéen ci réew mi kii aar Sénégal mooy kii xeex góor jigéen mënoo aar Sénégal ba noppi ñu lay laaj ci mbirum góor jigéen ngay layam layam di wiiri wiiri moytu leen aar Sénégal ñoom Thierno Alassane Sall di Thierno yi ñaari kenn yi kenn Bocoum ko Thierno Alassane Sall ak Cheikh Omar Sy moom xam ne na ak waa benn boo ko yaakaar bu baax Cheikh Omar Sy waaw nekkoon na fi député wax xam nañ waaw waaye yéen ñi nga xam ne yéen eh, am ngeen encore seen crédibilité. Montaigne la xawma ak Ibrahima Ndiaye ak um, Marème Soda yéen seen crédibilité bu leen ko yàq Sénégal dafa toll ci benn moment de clarification par rapport à quoi pas par rapport à des milliards de Sénégalais yi du milliards moo leen tax a jóg Sénégalais yi du am am moo leen tax a jóg bu ñu ko bëggoon Macky Sall la ñuy topp mais bu ngeen gisee ni ñu toppee Ousmane Sonko ngeen xam ne Sénégalais yi ay valeur la ay nit ñu am valeur ay principe la ñu bëgg ci nit ñi moo tax ñu topp Ousmane Sonko Marème Soda Montaigne Ibrahima Ndiaye yéen ñett ñi nekk aar Sénégal bu leen yàq seen avenir politique topp ay kooba yoo xam ne sa Seck ak Macky Sall ñoo leen jàngal politique ay kooba lañu yu sangoo nekk ay bukki yu sangoo daru bëy toog nag ci biir gétt gi nag ne waaf di xaar lamp yi fay moytu leen ma ñooñu lu leer laa leen wax nag dëgg ma waat na ma waxoon nga ko mi suñu kanam. tay fofu la génn waaw tey moom sama mbokki xalpulaar lay mos lacciri ak kosam kosam lacciri ñoom xam nañ loolu depuis non c'est c'est Montaigne c'est pas Montero c'est Montaigne je pense c'est Montaigne hein je je retiens pas son nom mais je pense c'est Montaigne hein. c'est pas Montero non je pense pas ñoom daal feeñ nañu Abdourahmane Diouf ndax pare nga pour daan góor jigéen ñi boo nekkee député xanaa waaw attention nañu def ndànk ndax bëgguma ñu tuumaan nit ndax góor jigéen wax nañ fi kii am na fama xarit yoo xam ne ñu ngi leen tuumaan te ay gor seet wi ci lañ bokkuñu ci bokk nañ ci ndax loi bi du caaxaan dañ ko war a xoolaat tëgg ko ñañañaña la la la ñañaña cëpp Maimouna Ndour Faye ne ko Abdourahmane tontu góoma <laughs> ba léegi de dama ne ndax yow pare nga pour daan góor jigéen ñi waaw wala déet ba ba sànq suba waxu ci lu leer te dafa njëkk wax ne ko bu subaa boo ñëwee suñu ndaje ma daañu la ci wax lu leer yow yow lañ koy laaj laaj ñu ko wax aar Sénégal yow Abdourahmane Diouf lañ ko laaj léegi nga tontu ci ngay layam layam lépp dana leer kenn dootuñu nax suñu état bi nguur gi bëgguñu ci ay góor jigéen jox la pouvoir jox la oto jox la policier jox la kër di la fayal courant ndox di la fay salaire yu baax ak si hôtel ki lépp nga nekk ci liggéey góor jigéen ñi aywa yëndaw sàmm ñoo ñàkk fay na ñu la fay jox la nguur gi nga nekk ca kaw climatiseur yi duñu fay oto yi gasneer yi tukki yi passeport diplomatique yi alal jeeg xaalis bi yëpp pour lan góor jigéen ñi nga fa nekkal waaw ñun ñàkk ñu fay na amul ah waruñu am fu la ñun taxaw ñoom ñëpp kenn ku ci nekk leeral te waxuma aar Sénégal rek de képp ku dem élection la wax képp ba ci Macky Sall ñi mu mimi touré dañu taxaw wax ni mom lan la xalat ci goor jigen ni mom mimi touré bu suba nañu ko ko laaj ni conférence de presse rek di mbeul mbeul gi ñu ngi moy gog mu melni ko AVC da taxaw mom mimi touré wax ni lu mu xalat ci pousse carap mom mimi touré momé ak képp ku dem ci élection yi tedd liste nan ñu wax ñoom ñu jité liste lan lañu xalat ci jigen dafa wara leer ne mbirum jigen ni duñ ci fal kenn ci ngor jigen yalla nañu ci yalla musal tête de liste yëpp laa wax képp kuy laaj réew mi nan damaa bëgg a falu te jiite ab liste nañ la taaj na la yow criminalisation góor jigéen am na nga ci wala àndoo ci boo ci àndee noo koy defee ndax sa priorité na ndax buñ demee assemblée bi nga bokk ci ñiy gàddu loi bi fexe ba ñu voté criminalisation góor jigéen ci Sénégal waaw wala déet nañ ko laaj ñi jiite liste yëpp sans exception ndax c'est un point focal c'est un point central par rapport aux valeurs que nous voulons donner, et pour nous et pour nos enfants. Nous une assemblée de tous 4 ou 40 ans. On ne veut pas d'une assemblée nationale de tous 4 ou 40. Non, Mariam Soda. J'ai beaucoup d'estime pour elle, Mais elle m'a l'air posée, elle m'a l'air comme foule, je la connais pas, mais. Amarawan Yemenoko. a ko je ne ko waxal ma xamul mais donc na moytu Je sama je sama je ne na je bu baax bu nangu kenn ku ko manipuler du ko dugal ci ay jeu wala ay agenda yoo xam ne moom du comprendre moom day ànd ay nit foog na ñëw bokk fi ñu jëm fekk gars yi da ngay ànd ak ñoom ba yàgg ñu tourné gauche nga ne di doox fekk tourné dañ bu nga dem ba yàgg gestu gisoo leen fekk ba ñuy tourné tàggu wuñu ne wuñu ne ay eh, gauche ñoo ngi tourné a ah, da ngay jékki rek xool sa ginnaaw doo gis kenn Mariam Sode Ibrahima Ndiaye député montagne moytu len da ngeen di and ak ñoom di dox ba yàgg ngeen gestu du ngeen leen gis du ngeen xam fu ñu jaar ay jinne lañu dañuy dugg ci xandik diwtiir takk rip ak diwtiir genn taxaw weex tal dama leen a xam waaw dund gu yomb lañu bëgg Idrissa Seck mo leen ko jàngal ak Macky Sall ay élève Idrissa Seck lañ tappale ak wax ba falu ci lañ bëgg lu yomb duñu liggéey duñ def dara lu yomb ci lañuy ñuy dund dañoo bëgg nguur gu yomb bëgg falu gu yomb bëgg lépp ci ay wax Idrissa Seck moo leen jàngal loolu moytu leen leen dañuy sonn dugg ci àll bi dem ci baykat yi di xool ak nappkat yi sàmmkat yi di xool saafonteeg nit ñi di xool seen i jafe-jafe am yërmande ci ñoon di leen xalaat Idrissa Seck te mu àndal du ñu dem fenn ay ñoom docteur Abdourahmane Diouf ak ay subhanallah ñu ma leen xamee Cheikh Diaw xam nga dëkk bu ñu naan tëgg ndogu tëgg ndogu xam nga tëgg ndogu Cheikh xam nga tëgg ndogu hmm tëgg ndogu ñen ak yow sama mbokk ñu bëgg jauh, Kajoor xam nga tëgg ndogu <laughs> Cheikh ah Cheikh man man sudis la de man suis la Casamance de man waa Casamance la Cap azigal à dua kali masalah dek dua kali juga jawab dek ah waaw mais ñoom ñëpp ku ñu waa aar senegal googu ngeen gis élection 2019 bi ku ñu àndaloon kan moo nekkoon seen candidat dama leen laaj aar Sénégal ku nekkoon seen candidat 2019 Idi ana Idi. ana Idi ma nga ca conférence de presse léegi dañ koy woo Mimi Touré koy convoqué ne ko da nga ñëw par force moom Moussa Fadio dañuy ñëw par force ñëw toog jox la parole ngay wax Mimi mooy sa patron Mimi Touré mi nga xam ne Macky Sall da koo dàq ca CESE ga la ko dàqee conseil communautaire environnement la ko Macky dàqee toroxal ko wàcce ko jox ko place Idrissa Seck ñëw war a jël lenge yi Mimi Touré war koo jox lenge yi Mimi Touré faa xaaru ko fa dem yoonam dem toog këram bis bi Idrissa Seck di jël si lenge yi Mimi Touré ñëwul ñoom ñaar ñoom ñaar tasawuñu fa ba tey ba tey gisante wuñu ndax mer gu Mimi Touré mer moom ba léegi tegantoo wuñu bët dafa baax ci état buñ la dénkee ay mbir booy dem ki ñu ko jox ngeen joxalante lenge yi Mimi Touré ak Idrissa Seck joxale joxalante wuñu lenge ba sànq ci suba ñoom ñaar ñi ngi soog a gisante xam ngeen fu ñu gisantee ah ñi ngi soog a gisante démb gi seen conférence de presse fa lañ daje ndax Mimi Touré moo convoqué Idrissa Seck moo ne koy moo ne Macky Sall Idrissa Seck bu ñëwul ak Moussa Wade il faut ñu dàq leen parce que man képp mënu maa nekk ci campagne bi di campagne benn boo ko yaakaar na liste bi benn boo ko yaakaar na Idrissa Seck ñoom ñëpp ay ay alliés lañ dañoo war a ñëw ci campagne Macky Sall ne Idrissa Niass ak Moustapha Idrissa Seck Moustapha Niass bu ngeen demul seen carotte yi ngeen ruux ci suuf carotte yëpp naa ko buddi Idrissa Seck da doon sieste kat du liggéey du nelaw rek ak bëgg lu yomb xaalis takk ay dàllam ñëw toog ca gis ngeen ko mu toog mu toog ca dajama di wax yu kenn xamul Idrissa Seck mi Mimi Touré ko convoqué moo ko mooy patron ñoom Abdourahmane Diouf ñoom Thierno Bocoum ñu genre yooyu passation de pouvoir la tubaab di wax man may wax jokkalante ay lenge jokkalante lenge xaw ma yelewaar xaw ma ndax la fi jub nam di joxlante léegi yow nga ne passation de pouvoir <laughs> ay sama gelewaar bi yow moom tubaab nag moo xam nga Cheikh Anta Cheikh Anta moom dafa dégg wala fa dafa dégg tubaab Cheikh Anta ñaar yëpp la peeg waaw ah, Cheikh Anta moom paaka ñaari boor boo ko boo ko njoosee ci tubaab doo naani waaye cey boo ko njoosee ci wolof boo ko njoosee ci wolof doo boo ko njoosee ci tubaab doo naani sama bàjjo ba kenn moom nee na passation de service <laughs> gërëwaal waaw jaranta paaka ñaari boor la fii ma faa mhm. loolu loolu mooy li nga xam ne mooy am mu ñës nag sànq bi may too tàmbali live bi mer naa lool te Macky Sall moo ma merloo ndax dama xamul daal lu tax mu yab ñu rek daal laa xamul daal ba saa suñu daal mu duñu titiyee duñu kekkantoo duñu tëkkoo ko duñu man daal li ñu yebe daal metti na ma lool loolu daal laa xamul rek fu mu ko teg nañu waajal te jóg jóg fii ak weekend bi nañu jóg weekend bii nañu jóg nañu jóg nañu jóg jóg jot na nañu jóg saaga yi ñuy Macky Sall saaga tey ci dëkk tubaab saaga yi ñu saaga ci pari tey tëkku yi ñu tëkku ci pari tey ak wax yi nga xam ne wax na ko ci liste beeg ni mu beddee Sonko te dara du ci dëgg sos lay yi Macky Sall sos ci France tey jii wa euh, lay ko fa ak toroxal gi mu toroxal journaliste yi Sénégal yëpp ak ñi nga xam ne ñooy presse sénégalaise ni leen Macky Sall toroxalee lànk na du wax ak ñoom du def interview ak ñoom du def ak ñoom dara waaye bu amee lu muy wax day dem ba France wax ak ñoom waaye du wax ak benn sénégalais loolu képp ni ma méttee waaye yemu ci mu nekk ak tubaab bi di sos di wax loo xam ne dara amu ci Macky Sall naka la mën a toogee tubaab bi di ko laaj affaire élection mu di ci tontu Macky Sall lan mooy yoonam ci ay élection Macky Sall kon li ngay jàng ci Macky mooy li Antoine Diop def yëpp Macky Sall xam na ko maanaam njuuj njaaj jeeg conseil constitutionnel gis nga Macky Sall lépp la xam ndax moo nekk ci ginnaaw moo ko Antoine Diop seen téléphone yu tàqali ko Macky Sall lépp la xam di xew yëpp xam na ko moo tax mën na laa wax li xew yëpp ndax moo nekk ci ginnaaw di njuuj ak njaaj ci bu ñu mu taxawee na ne sama yoon nekku ci yëguma lu xew ñu naan du saagaat dafa yaroo kenn mësu koo déggal léeg fekk ñiy saagaate xeexal kay def lu bon yëpp moo nekk ci suuf di xam Macky Sall ndax ndax ndax ndax ndax ndax naafeq la def ci kaw ci suuf lay def dina but taxaw pour wan leen activiste bi ànd Samba Abidjan ak activiste bi ànd ak peuple bi ñun nag activiste peuple bi lañ na leer kon xel yi yeewu leen gars yi tàmbale nañ de législative lañ jëm léegi nag dañuy commencé waat divertissement jaxase xumbal yaa ma gën a xam politique